sawi lmalaahi wajjahtu kulla alhamdi wa shukuuri lil maaliki rahmaani wa shakuuri wa sallim wal tubaarik sarmada alal lasi sammaytahu muhammada wa aalihi wa sahbihi wal anbiya wa shukurtihi muqaddamaati rabbiya wa sarax biha sudura man taxallamu sharxat bihi laa taxtari himsalamu barkeb Sëriñ Tuubaa mm-hmm. noo ngi nuyu mbokki ak mbokki taalibe waa réew mi bitim réew mboolem téléspectateur yi topp seen télé bu mag bii di leeral TV. Mhm. rawatina nag seen jotaayu bopp bii nag di jotaayu xam-xam ak uk taalibe bi. Mhm. ko waxee ñu koy am guddig àjjuma ko jot ci waxtu wi mu vingt et une heure vingt et heure dem ba vingt trois heures. Mhm. waaye mu mel ne jamonoy safar gii nag dañ koy am saa su nekk wala saa woo saa saa su nekk bis bu ne. keroog màggal gi dëgg la. Alaaji Boubacar maa ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg tànn ko wér. amiin yaa rabbal aalamiin. ba yeggale naali boppam yëpp ànd ko njaboot gi ak taalibe yi. amiin yaa rabbal aalamiin. noonu it nañ ko ñaanale taalibeem bu mag ba Serigne Amdi Modou Serigne Amdi mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall Ba. amiin yàlla fi yàgg te mboolem Baye Fall ñun Baye Fall yëpp ñu yàgg fi te wér. wallaay ndeysaan. waaye di nuyu kilifa goo xam ne toog na ci buntu lislaam ci réew mi. Mhm. yàlla may la nga wér ak saggu ba nga yeggale say naal amiin yaa rabbal aalamiin ak mboolem sa njaboot ak say taalibe amiin waaye réew mépp ñu ngi leen ñaanal jàmm di ko ñaan ci àddina si amiin yaa rabbal na ngi lay fay am nuyoo te di la nuyu bi ci bokkaat yow ci jotaay bii mhm. bismillah ñu ngi nuyu nag waa bi mhm. ak ñi fiy liggéey ñëpp rawatina techniciens yi nga xam ne mhm. ñoo bi nag wallaay ñoom Alioune Badara ñoom wallaay ñoom ñoom ñoom Daouda yooyu ñoom Mouhamed nga xam ni ñooy tax ñu man noo seetaan. yàlla leen yàlla yokk yàlla leen yàlla yokk wér taxawu leen taxawu directeur bi ba ci ci suuf. ñu koy def te xereñ si lool nag. wallaay te sawar ci teg ci. wallaay ndeysaan. waaye sëñ Saliou agsiwaat nañu nag ci jotaay bi. agsiwaat nañu ci jotaay bi. muy jotaayu xam-xam akuk taalibe. wallaay ndeysaan. ñu koy am nag amal nag alxamis ju jot ni nga ko waxee. wallaay ndeysaan. waaye nag tey nag jotaay bi nag. Mhm. ah dafa am lu rëy rëy rëy lu ci xew. lu rëy rëy mooy li ci njëkk. Mhm. mooy thème bi ñu tànn thème bi nu mooy kin fas yéenee waxtaane tey jii ci jotaay tey jii ci jotaay bi. lay ndeysaan. loola day lu rëy rëy mm-hmm. di njariñ ci képp koo xam ne. Mm-hmm. bëgg ngaa dégg ab xam-xam. Mm-hmm. waaye leneen li ci dolleeku nag. téere yi lool it. mooy kin ko fas yéenee àndal mu fas yéene koo waxtaanee. mu defal na waxtaan bi muy Serigne Moustapha Seck. Ndigal Ndigal. moom moom Cheikh moom Serigne Cheikh Ndigal Fall. ay borom ndigal. yàlla na fi yàgg te ànd ak yàlla na fi yàgg te sëñ Cheikh Ndigal sunu Serigne bu baax boobu. jàmbaari Cheikh Ibrahima Fall ji. wallaay ba di Baye Fall te Baye Fall lool. waaw mu di saarixe ngi noonu. waaw bëgg Cheikh Ibrahima Fall lool. wallaay di Serigne matub Serigne. wallaay ndeysaan. Fall Ndiaga. ñu fas yéene ci ànd ak nag sëñ Moustapha Seck. waaw moom Serigne borom ndi borom ndigal nga xamante ni moom euh, day kok. Mm-hmm. day borom xam-xam. Mm-hmm. ndax commission bii nga xam ni mooy commission culturelle bi. bi mm-hmm. nga xamee ni Euh, war nañoo yeble ci ku mm. ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi mm. moom mii lañu tànn sëñ Moustapha Seck mm. ngir wóolu ko ngir ab xam-xamam mm-hmm. te commission boobu bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo leen fi teg wallaay moo leen ci kaw loola nag euh, ñu koy xamal téléspectateurs yëpp nag mm-hmm. kon nag moom la ñu am muy sunu ganu tey mm-hmm. ci jotaayu xam-xam xam naa ni tey képp ku bëgg a dégg xam-xam ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriid ah, di nga yokkuwaat te yokk ci Cheikh Ibrahima nag mooy dolli ko ci taalibe kon spécial maam Cheikh Ibrahima la tey spécial maam ah, te dolli ko ci Cheikh Ibrahima mooy dolleeku ci sëñ tubaa wallaahi dolleeku ci sëñ tubaa mooy dolleeku waat ci ak taalube te loolu mooy daraja ju yokk mooy murit buy gën di yees wallaahi kon nag dama koy jox mu nuyoog euh, téléspectateurs yi sëñ Moustapha ñoo ngi lay nuyu bu baax di la bége mm-hmm. te di la dalal jàmm nag fii ci leeral TV wallaahi euh, di am mbégte nag bu baax a baax a baax mm-hmm. ci tawféex gi ñu sunu borom defal mm-hmm. ba nga teew fii ci jotaay bi ngir mën a waxtaan ak téléspectateurs yi ci ku tedd kii di maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridina kon ma jox la kàddu gi nga nuyoog euh, mbokk yi Mm-hmm. jërëjëf aouzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim lil muntaxa xuttu am daaxan xawat sadada salla alayhi allazi ata bihi lmadada mm-hmm. allahu fadalahu xalqan wa azama xulqan bihi li siwaana kafa man xasada mm-hmm. taslimu man saanani an kulli mafsadatin ala shafin kafani kullama fasada xayraatu rabbi nahlil jinaani bihi wallahu safa li arzaq walbalada faazat xayaati bi kawnillahi li abadan xama iyali wasaanal jisma wal xalada allahuma salli ala badri tamaam allahuma salli ala nuri salaam allahuma salli ala miftaahi daari salaam allahuma salli ala sham jami anam barke borom tubaa sëriñ Boubacar maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara nangu ziyaar di la fay nuyoo bu baax tey bëkk ndax yow nit ku baax nga ko tedd ku rafet jikko xam ne sa jikko sell na te it di borom xam-xam alhamdulilah maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la joxe itam sa wàcc wàccuwaay bu baax baax a baax jërëjëf di nuyu sëriñ saaliw sàmb mhm. borom xam-xam bu bari bi macha allah yàlla bu la ca topp ndax ndaw moom bu jógee mal sëriñ bi te yitteem di sëriñ bi mhm. te boroom liggéey bi waxoon ne wax di bi chibanu futiyaana mhm. ngeen bokk ci ndaw yi nga xam ne damoo sëriñ bi tey wane ay ndamam te di ko béggee def lu dul ñaanal leen suñu borom ngeen yeggale. amiin yaa rabbal maa ngi tàmbalee sama nuyoo ziyaara ci saaxibul fadila wa shajaa wal karam Cheikh Mamadou Muntaxa mhm. di ko ñaanal suñu borom may ko fan wu gudd lool. ak wér te mu ñaanal sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda. Mhm. mi toog ci jataayu maam Cheikh Ibrahima Fall bii. Mhm. suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. li mu sumb te yéene ko te naal ko ci yoon wi. suñ borom may ko kàttanal mu yàggale amiin yaa rabbal aalamiin a ngi nuyu itam sama bunt ci yoon wi muy seex Cheikh Rokhaya Fall mm-hmm. ibnu Serigne Cheikh Fall baay bu góor ibnu Cheikh Mohamed Moustapha Fall maa ngi koy ñaanal suñ borom defal ko feex ba jeego yaa muy dox ci biti réew mm-hmm. suñu borom may ko ci ndam mm-hmm. ci baaxu borom Tuubaa te di ngay maam Cheikh Ibra di nuyu téléspectateurs yëpp ak ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy bàyyi xel waaye ki tax ma toog fi tey kam jaare ca moom muy Serigne saaliyu Fall. maa ngi koy nuyu di nuyu nag mbooleem sëti Cheikh Ibra Fall. yi aju ci Jazbul Murid maa ngi leen di nuyu ndax mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo lëkkaloo di liggéeyal Cheikh Ibra. wallaay sët yi ak taalibe yi bokk ci di ko liggéey di ko taxawu. Mhm. commission bi tànn sunu jëmm ju xeebu ji ñëw ngir ñu waxtaane sëriñ bi maa ngi leen di sant di leen nuyu di leen jaajëfal mhm. di ñaan suñu borom defal nu tawfeex ak barke wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Moustapha ci nuyu bu am solo boobu. Mm. ñoo ngi lay delluwaat di la nuyu bu baax di la bége. Ah. te di la wax nag say soppe ñoo fi toog. yow say soppe nga toog maa leen bëgg. ah ñun ñoo la raw rek. <laughs> maa leen bëgg yéen wallaay sëñ Moustapha Seck mi ngi noonu kon tey képp ku bëgg a dégg xam-xam te dolli ko waat ci na nga daal di defaru. Mm-hmm. xam ni jotaay bi dina murite mm-hmm. waaye dana Baye Fallé. te Baye Fallé nag day dëgg dëgg murit sëñ Saliou. waaye sëñ Saliou ñoo ngi dem ba Kaolack. nuyu fa sëñ Modou Mbacke Diaw. di sëtu sëñ Mali di doomi sëtu sëñ ma sëñ sëñ sëñ Mamour sëñ Maalum Diaw. sëñ Maalum Diaw mu baax moom sëñ Maalum Diaw mu baax moom yi mm-hmm. nga xam ni moom ak sëñ Mansour Diaw. ak sëñ Mansour Diaw Paxa ak sëñ Ahmadou Diaw Paxa. ñoo bokk njaween. ñoo bokk sëñ Tuubaa yi nag kon ñu ngoog sëñ sëñ borom SDPP. wallaay ku baax jotaay baa ngi koy beral ab nuyoo. ku bëgg sëñ Tuubaa ngi noonu. wallaay ndeysaan koo xam ne jotaay bi du ko rate. Euh, maanaam tekkantal boo ci def. Mm-hmm. ak seetlu goo ci def. Mm-hmm. wax dëgg yàlla barki dem damaa woo ma man de Euh, sëñ tubaay yooyu ñii ngi ci daam ñii ngi ci Ahmadu. waaw ñii yéen a ngi ca kaw waaye dimbali leen nu rek wàcc leen tuuti wàcc leen tuuti nee ñu wàcc tuuti. ñu ñëw ci ñoom Abdoulaye ñu ñëw ci ñoom Abdoulaye <laughs> ñoo koy nuyu bu baax a baax a baax. ku baax yéen ñaan yàlla doole ko wér. wax dëgg waaw wax dëgg neex yàlla. kon nag sëñ Saliou. kon tey nag ñu fas yéenee waxtaanee maam euh, Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima kat day géej day géej géej nag suñ ko waxee. Mm-hmm. xam na ni daa bari tefes kon. Mm-hmm. ndax génn géej foo xool. Mm-hmm. kenn ku ne ak tefes ga nga cay sangoo. mu nekk jëmm joo xam ni ba du ne dee àdduna léegi mu feeñ ci àddina. kenn ku ne yaa ngi wax ci moom. kenn ku ne mën ngaa bañ a bokk ak sa moroom la ngay wax ca moom. ak wet ga ngay wax ca moom. te kenn ku ne it loo wax ci moom mu doon kawteef doon kéemaan. goo xam ne day tagtale màggug yàlla waaye di tagtale màggug Serigne Touba. Euh, ñu mën koo waxtaane nag ci fànn wu ne. mën koo waxtaane ci wet gu ne. ndax Cheikh Ibra suñ jëloon tey baabul muridiina mu doy ab waxtaan mu doy sëkk ab waxtaan wallaahi mooy lan mooy baabul muridiina wallaahi ndeysaan alxuraan ne wa aatul buyuuta min abwaabiha min abwaabiha wallaahi ndeysaan dégg nga sëñ Tuubaa waaye baabi tariqi wallaahi ndeysaan kullu rida nga xam ne buñ taxawoon foofu rek ñoo xam ne Cheikh Ibra kenn du moom wallaahi waaye sëñ Saliou buñ doon waxtaanee Cheikh Ibra en siraaj nga xam ne alxuraan dani inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nasiira daahiyan ilallah waaye wa siraaj siraajal munira siraajal munira nga xam ne mooy làmp faal loolu rek sëñ Saaliw waxtaani waxtaani waxtaani waxtaan la Aboori Diall noonu Aboori Diall it noonu la demee waaye bu ñu jëloon Cheikh Ibrahima en tant que murid sadiq wallaahi nga xam ne mooy prototype bu murid mhm. ni sëñ Tuubaa bëgg ab murid ni mel mhm. ba mu ba mu ba mu woy sarti murid sadiq mhm. wax ni suma asidduxu fi ma habati cheikh yi suma imtisaalu amrihi yaa ngi dégg ba melo ya jeex ñu ñu gis ni Cheikh Ibra kenn du moom mm-hmm. waaye suñ ko jëloon ci wàllu àddina en tant que intellectuel en tant que intellectuel en tant que diplomate Cheikh Ibra euh, sa capacité intellectuelle mm-hmm. est incommensurable boo demee archive nationale tubaab bi dañ ñuy wax ni Cheikh Ibra il était beau. daa nekk nit koo xam ne yàlla da koo tànnal aw melo. dafa rafet maanaam li sëñ Tuubaa di woyant bi naan ko xalxan wa xulxan. wal mislu xattu. lam yuraa walam yuraa. ahmaduna. rahmatuna xaamiduna. mahmuduna. farxatuna wal juudu. musri diyami nga xam ne inni uqati bu jamil la ca sëñ bi teg mooy ku taaru kooku. Mm-hmm. ndax leeru yàlla daa nekk ci moom. Mm-hmm. Cheikh Ibra day nit ku taaru. Mm-hmm. boo demee archive national capacité intellectuelle mhm. tubaab bi ne remarquablement intelligent mhm. Cheikh Ibrahima est remarquablement intelligent wàllu diplomatie buñ ko ci doon waxtaanee mhm. xam ni ñun ndawi jamono ak magi jamono bu ñu puiser woon ci diplomatie Cheikh Ibra kon danañ gën a mën a jekk suñu jamono ndax boo demee archive nationale euh, diplomatie Cheikh Ibra tubaab bi ne c'est un fin diploma Cheikh Ibrahima c'est un fin diplomate te ña ko wax. Mm-hmm. ñooñu ay boroomi xam-xam lañ ci wàllu xam-xami àddina. Euh, bu jëlee maanaam euh, esprit de créativité am. Mm-hmm. maanaam ki nga xam ni dafay jàngale nit ku yàlla wàcce ci àddina. Mm-hmm. wax ni wala tufsidu euh, tufsidu fi lardi. baax da islaahi bu leen yàq suuf ndax. malayka yi dañoo njëkk a wax yàlla ni nit mhm. kii nga wàcc ci kaw suuf ku yàq suuf la man yufsidu fiiha man yufsidu fiiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Cheikh Ibrahima ñëw en tant kuy defar suuf mhm. nekk xalifatullahi fil ardi di mhm. defar suuf il était propriétaire de terre à Louga à Ndiambour Géoul à Thiès. à Dakar ba Lambinaas. boo duggee biir Ndakaaru bërëb yi fa gën a kawe gën faa tedd. ba sunu pale bii dëju fa. bërëb yooyu yépp ko wër mag ñi nettali nañ ne ay bërëbu Cheikh Ibra la. waaw sëñ Saliou nga xam ni kon kooku c'est revenu annuel. wallaahi à autant tourné autour de cinquante mille. te booba dërëm dund ay at la. mbaa mbaa dërëm nekk dund at. nga xam ni boobu am koom-koom jafe na waaye Cheikh Ibra di ko ko waxtaane mën ko waxtaane ci ay ndénkaanam ni muy jariña ndaw ñi ak ni muy defaree nit ni muy defaree dundug nit waaw ba dugg ci lu koy yàqal tey aw ci yoon bu koy defaral wallaay ndeysaan mel bu ci nit tënk woon rek addunaam mm-hmm. baax alaxiraam wet googu euh, euh, dañuy xaar tuuti abori jàll dañuy xaar dañuy xaar Cheikh Ibra en tant que murid mm-hmm. suñ doon waxtaane sa dimension dimension politique. Mhm. sa diplomatie. Mhm. Ah, sa capacité intellectuelle mhm. wet googu mel na ni euh, wet gu ni xaar na. waaye tey bu ñu duggoon ci maanaam ndinkaane Cheikh Ibrahima. nga xam ni xakim la. wallaahi xakim koo xamante ni ku mën a jàngale. wallaahi benn boo jël ci ay njàngaleem. wallaahi nga xam ni tubaarkaal la. tubaarkaal la waaye tey Cheikh euh, sëñ Saliou. comme danoo toog ak borom xam-xam. dañ ciy profité nag. wallaahi ah, wet yooyu yëpp damaa bëgg nu tegandiku. buñ jëloon nit la dimension spirituelle de Cheikh Ibrahima. maanaam tolluwaayam diggam ak boromam. Ah, kamsul maqaamaat. ngay xam ni kooku. wallaahi yàllaa denc ay maqaama ci moom. wallaahi nga xam ni benn. Mhm. xaafis la. wallaahi daa mokkal alxuraan lax ko. Mhm. Mhm. ndax laata muy ñëw ci Sëriñ Tuubaa ci saayir. daana naa fi laa kaamil. wallaahi waaw introduction bi day junj ni. wet gu ruqe lañ nar a waxtaanee ci moom moo xam ni ñëpp ciy jariñu. wallaahi euh, ñaareel ba. mooy Cheikh Ibrahima baatinam. baatin bi mu am xoolal. koo xam ne laata ngay ñëw ci sëñ Tuubaa yaa ngi déggante ak yàlla waaw ah, ba mu di la wax ko la moom ak ni mu la moom ba mu di la wax ko la moom sëñ Moussa loolu day lu yéeme mm-hmm. ndax bi bi bi ñëw ci bi wax ak sëñ Moussa Ka mm-hmm. daal di ko sama ñëw ci sëñ Tuubaa yàlla bi moom ñëpp moo wax ak man mm-hmm. kon moom yegg na ci kàllaamul laay wallaahi di déggante ak yàlla ñaareel ba mooy moom xàmmee na xetuk sëñ Tuubaa hmm, wallaahi sëñ Saliou hmm. xàmmee sa xetuk soxna rek lu jafe la eh, waxuma laa xetuk sëñ Tuubaa waxuma laa xetuk sëñ Tuubaa waaw ah, mën a topp tànk yàlla nag waaye nag mën a xàmmee xetuk ku jóge ci sëñ Tuubaa wallaahi ah, loolu nag lu yéeme la ak xàmmee yàlla mën koo topp ba ne sëñ Tuubaa tànk yàlla laa topp xam nga kon kooku wallaahi dimension intellectuelle eh, eh, spirituelle bi mu toll rek hmm. buñ ci taxawoon wane ni du moroomu kenn wallaahi te yooyu yëpp dajale na ko ñëw ci sëñ Tuubaa bëgg a doonub taalibe waaye tey dama bëgg ñu sëñ Moustapha ñu waxtaane Cheikh Ibra ci wet goo xam ni sëñ Touba njariñ li mu doon ba def déclaration bu rëy mhm. woo woo géej woo jéeri mhm. yàlla ne ko mhm. maa la digal man sa waroom na nga wax ak àddina nit ak jinne ak malaayka ak képp kuy mbindeef ne yow Ahmadou yaay njariñul tey ak ëllëg xam nga loolu lu rëy la ndax dañi amara nii rabbi rabbi sëñ Touba dañi amara nii yàlla ci jëm boppam digal na ma ku la digal mu ne rabbi sama borom lu mu la digal mu ne bi an ko sariha wallaahi naa leeral nañ na lépp leer sëñ bi ne man ko yàlla lu may leeral mu ne leeralal àddina ni bi an na nii ximman wa malaasun wa mafsahum fa man araadal xayra fii kilte yi daareeni fal yalus bii leeralal àddina ni yaay njariñ mhm. képp ku bëgg maanaam wéeru wéeruwaay weew la mhm. aaruwaayu yow la hmm. muccukaay bi it yow la wallaahi léegi sëñ tubaa doon njariñ lu toll noonu hmm. faman araadal xayra nag fii kilte yi daal daari di àddina ak alaaxira ku fi bëgg njariñ na ñëw lu ci man jaayanteeg man kon xam nga hmm. kon sëñ bi day njariñ wallaahi waaye li des nag mooy nuñ koy jariñoowee loolaa coow li Sénégal am na hydrocarbure maanaam am na petrole ñëpp a ngi koy dégg waaye problème bi mooy pétrole bi nuy def ba jariñoo ko ba ko mu yombal sunu courant yombal sunu dund ñu mën a tëdd ci ay clim di dawal oto yi ñu bëgg a dawal di sol mm. yére yi ñu war a sol. wallaahi ndax mën ngaa dëkk ak teenu pétrole. Mm-hmm. ba noppi yow da ngay tàllal sa loxo door a dund mhm. ndax lan mooy xamagoo noo koy jëriñoo mhm. te sëñ Tuubaa weesu na loolu mhm. ndax kataballaahu tabaaraka wa la wax anna kaatiba hasil xuruufi manafihal bilaadi wala waxalaa ma naqulu wakil njariñal réew yëpp ak njariñal jaam ñëpp yàllaa ko teg sama loxo Sëñ Faal nekk na ki nga xam ne daa fas yéene ñëw nag ngir jukki njariñ loolu wan ñu sëriñ Tuubaa nuñ koy jëriñoo koy jëriñoowee ba tax képp ku dib murit tey njariñ loo am ci sëñ tubaa wala gërëm gu la sëñ tubaa gërëm wala lu la sëñ tubaa jariñ war ngaa wëlbatiku njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall ndax moo moo moo moo su wàqi tool bi ba ñëpp mën a gis ni sëñ Tuubaa njëriñ wet googu nag sëñ Moustapha waaw laa bëggoon sëñ Saliou tey nu waxtaane ci nag Cheikh Ibra nag wet googu nag ma wet ga moom waxuma Cheikh Ibra mi léeg-léeg murit yi ñenn ñi di waxtaane sama classe bi naan ka jéegoon ca kaw xëy ga eh, Cheikh Ibra nga koñi rek Cheikh woon nag di xumbal ba waxuma waxuma kooku Cheikh Ibra Fall boo ko waxtaanee ba daaneel ñoo xam ni ab taalubee ngi wallaahi ñoo xam ni sangub góor ñëpp ngi nimbalaa koona ngi nimbalaa koona ngi Cheikh Ibra day day day day nasroo wallaahi nasrun minallaahi mm-hmm. am en tant que maanaam koo xam ni ndimbal la lu tukkee ci yàlla dimbalee nu ko tey nag wet googu nag dañuy waxtaan laa bëggoon nag nu waxtaan ndax kat wet googu li tax mu mat a waxtaan dégg nga sëñ Tuubaa bi mu ne yonent bi daa doon njëriñ mm-hmm. xëy sun afaada mm-hmm. waaye dane man istafaada man istafaada ci ko sàkkoo jariñoo kon njariñ njariñ dañ koy sàkkoo jariñoo dëgg la waaye sàkkoo jariñoo njariñ yi taxamoo yoon bi ngay jaar ba jariñoo ko du mm. tax nga jariñoo ko déedéet Cheikh Ibrahima Fall nag mi nga xam ne njariñ li sëñ Tuubaa doon mm. moo ni jo tax a jariñoo Cheikh Ibrahima Faye kon en tant que njariñ ndax njariñ dëgg mooy njariñ fexe ba njariñoo sëñ Tuubaa wallaay ndeysaan kooku la borom xam-xam bu mag bi war a waxtaane wallaay ndeysaan sëñ Moussa Seck kon sëñ Moussa bismillah bismillah bi aouzu billahi min ashaitan rajim bismillahi arrahmani arrahim sëriñ Saliou jërëjëf jërëjëf Seck waaw ah, sëñ Boubacar jërëjëf jërëjëf Seck ci introduction bu rafet bi te set te leer te lépp dëggu mm-hmm. te ngeen teg ko ci dëgg ak xam-xam mm-hmm. Serigne Touba njëriñ la. dañ loo xam ni addina mën na ci jëriñoo. Mm-hmm. ndax lim ëmb. loo xam ne araani rahmaanu sirra dunya ya ba azayal xalqu duuna sulya mm-hmm. waaw ni nit di tiime loxoom bi xam rëddi baaraamam Serigne Touba ni la tiime addina. ci mm-hmm. basaat taxaw lu xew xam na ko. sëriñ bi yaquudu lii bilaa xurujin lil quran naf al zanousilin mm-hmm. fu njëriñ baaxee mm-hmm. ak lu réew ma sori sori sori sori sëñ Tuubaa ni suñu borom ñoddi ci barkeb rasulillahi mu dikkal na mm-hmm. nafaan yi yàlla jëriñ na ma ci man lay jëriñe bindee kon introduction bi ngeen def ci sëriñ bi ak njëriñam li mu amee ya juudu lil jawaadu maa laa yan faddu wa kullu maxluuqin siwaay yan faddu yàlla mi nga xam ne ma indakum yanfad wa inda indallahi baaq hmm. sëñ Tuubaa ne yajuudu lil jawaadu hmm. ku yor dara hmm. lum rëy rëy rëy day xëy jeex ba des man ma yor du jeex wallaahi ndax ngeneel yi xéewal yi wërsëg yi xasaa inu rabbi futixat wa sax saxat li xayril aza wa sax saxat li bari sax kon dañuy sant yàlla bu baax ci thème bii ngeen ubbi ci waxtaani maam Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra di njëriñ xam ne ku yàlla bind war ngaa delloo njukkal Cheikh Ibra Fall ah, mooy murit bi mooy murit bi mooy modèle bi mhm. mhm. mooy jëfkat bi wallaahi maa ngi tegtaloo mbindum koo xam ne ah. mbindam doy na sëkk tegtal mhm. Cheikh Mamadou Bachir ndax yéen a ci bopp waxtaan wi ne bi mu koy seet daana wax ak boromam. bi mu koy seet daana yëg xetuk sëriñ bi. te boromam mi ko moom moo ko tegtal Cheikh Ahmadou Bamba. mas nay xibaar ak jébbuloom. ba ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom. raasi ko jox ko say pexe. tegtal ko yoon wu am murit di aw ba am ngërëm bari murit te du rek di tax taxee. moom nag mu tànn yoonu teggin yoonu tarbiya mm-hmm. dal. di ko xeeñtu di ko seet Cheikh Ibrahima Fall mësta seet ci mboor moo xam ne dañ ko ciy xeeb déedéet Cheikh Ibrahima Fall kàngam la dañoo wax ni al adabu ah, daarun wala baytun wala yasilu lima fi l bayti illa min al adabi wallaahi wallaahi nga dëgg wax kër la mm-hmm. yar barke kon mm-hmm. kër la mm-hmm. kenn du jot ca ci biir kër ga lu dul da ngaa jaar ci mboorum teggin. Ah, buntu teggin rek. maa ngi ñëw sëriñ bi. Ah. yàlla duy ko ay ngëneel ba mu faas. Mhm. ràngu ci àddina ak ci àllaaxira. Mhm. nazaa man yafalu ma yashaau al ulum ah. wa yumnaha bi kawnihi al alim xafistu mhm. ma siina an dafatiri fala takun an xidmati bi bi jaahi mustafa sala alayhi bi salaami mustafa barakat alquran wal hulum wa qaada yumnaha ila taalimi ila tawalifi yaqudu llahu asrara la ilaha illa allah Cheikh Ibra Fall kooku di ko xool di ko wër waaye di ko wër ci anam boo xam ni mboorum tasawuf la jaar di ko seet waaye seetu ko ci nii ñuy nettalee waaw hmm. bokkut ak yi ñuy wax déedéet Cheikh Ibra Fall nitu yàlla la hmm. dañu wax ne xam-xam al maarifatu ala salaasi ah, ala salaasi asnaaf maarifatu tawhid maarifatu tawhid wa hiya li ammatil muminin dëgg la ñëpp ci mën a jot wa maarifatul xujja wal bayaan takunu lil ulama wal xukama wallahi wallahi wa maarifatul waxdaaniya wa hiya lil awliya wa hum jamaatun yashhaduna al xaq bi qulubihim wa huwa xiina idin yazharu alayhim lil ittilaa ala al asrar maa kisaali anwaai al maarifati li anna shamsa la tudriku bi shamsi loo ñu mooy indi ci yaxwi diyaan ka dawi ka daw i shamsi xaysu naha yahda biha kullu saxsin di sinaaraati mu ne waaw kay maa ngi ñëw Sëriñ Tuubaa lay tontu te Cheikh Ibra Fall dana la tontu ci Jisbul Murid ndax rasulullahi ku ko amel borub topp Cheikh Ibrahima Fall ne na toppal ci Ahmadou Bamba. boo ko bëggee fay. bokk ko bëggee fay. li anna salaata. iza faatal muxtaaru. Ah. faatal fadlu. Mhm. wa baqa al qadaau bi ay waxtin chita. dëgg la julli. Ah. bu muxtaar ma wéyee. Ah. faya ca des. Mhm. fay nag waxtu mu la neexee. si Cheikh Ibrahima looy junj mu ne Serigne Touba moo doon Rasulullah. Hmm. muxtaar ma moom mooy Rasulullah dem. kon nag faya ca des. waaw hmm. kon fii lañ koy fayee. waaw. daan ne wa shamsu dunya mhm. tatlu min aflakin wa tasuru fi burujin wa shamsul ardi mhm. tatlu min allahi wa tasiru fawqa al ardi mhm. wa kullu shamsin tahtaha anjumun wa anjumuha al muridun Cheikh Ibra Fall mooy léebu li may xam ma nga ci gis bul murid waaw kay nee na ah. jantub adduna bii tasiru fi aflakin wa tasiru fii burujin mhm. min aflakin wa tasiru fii burujin mhm. day fenk ci ay asr di dox jant yii biddéew yeeg yu ni mel ak weer wi daa ne loolu d'accord d'accord waaye jantu yàlla day fenk ca yàlla di dukkat ci kaw suuf si hmm. wa huwa cheikhun mooy sëriñ bi ngay junj sifaatu saadiqil muridi gee hmm. ci la Cheikh Rafal di jëm melawu nit lay doon waaw yàlla ne ci biiram jantub yàlla la boo hmm. xam ne yàllaay ni ci biiram muy dukkat ci kaw suuf si mhm. yor bindu doomu aadama duy mhm. sëriñ Tuubaa tontu ca xoqa mhm. yaxwi diyaan ka daw i shamsi xaysu biha kullu saxsin zistinaarati day duy leer ba fees leeram gi mën naa daj kapp adduna waaye ku ñëw mu duyal la yaqibu an kulli kawnin lil mukawwini za nuurin wa sirrin min ko Cheikh Ibra ne la mhm. waalam bi anna muraadaka inda seyxika walte bi baabi yii mhm. sa sëriñ boobee ñu lay junj di la ko tegtal mhm. boo ko wëree ba gis ko nanga nga sës rëkk ci buntam na nga fa jug bul fa jug sëriñ ba yor njariñ li wa an waxlam bi anna miftaaxuka fii muraadik inda seyxika ci sa sëriñ la ne walte ji bi baabi yii na nga sës rëkk ci buntam bu fa jugati waaw boo bëggee jariñ maa ngi ñëw kon Mm. kon kee ko doon seet ci Mbàkke Kajoor waaw sunu borom moo ma ne Bamba moo la moom Cheikh Ibra moo ne Serigne Bassirou Serigne Bassirou nee na Cheikh Ibra ne xakaa alayya muriduhul kabir <laughs> kii may wax mm-hmm. nee na naaru góor la fuguraas la ci kàngam yàlla yi mm. xaala lii mm. ma awalu li nga xam ne moom la njëkk a jaayanteeg sëriñ bi min al ahdi wal bayaati hmm. qultu lahu anni lam yuxrij min bayti illa talabu shay'in muwassilin ajudu min xaalihi nuura xaqin hmm. tandafexu amaamahu zulumatul xalqi hmm. wa tandili bihi ayatul xaqi sëriñ Saliou Cheikh Rofal mooy nettali sëriñ Basiru sëriñ bi may seet sëriñ bi may seet waaw ajudu min xaalihi nuura xaqin damay fekk ci biir baatinam leeru dëgg gu may fegal lënd mag bindee fii watandil yi mm-hmm. bii ayatul xaqi kaawteef yi sunu borom bi defoon ci addina sa nuurihim ayatina fil mm-hmm. wa fii anfusihim xatta yatabayyanum annahul xaq yoojee la Cheikh Fall di leeral mm-hmm. hmm. ki may seet faaw yooyu daje ci moom. ah kon xanaa awalam yakun bi rabbika uh, annahu xanaa yàlla mënul lépp. ah kay sunu borom moom ma ne Bamba moo moom. te bamba moomay da ngay fekk ci biir baatinam leeru dëgg. dëgg la gu lay fegal lënd mu bindee fi. Mm-hmm. ajudu min xaalihi nuura xaqin. wa tandafiu amaamahu zulumaatul xalqi. Mm-hmm. wa tandili bii ayatul xaqi kaawtee wi sunu borom yi day feeñ ci moom. dëgg mm-hmm. waaw. xanaa loolu da suñ tubaab ne zaharil xaq. Ah. bilaa ixfaa yi dégg nga loolu. yéen a tontu de. Ah. xanaa mu ngi bëgg a wane njariñ li kan moo ko war a yor ba noppi. ki ko war a yor ba noppi. doo ko wax niñ ciy jariñoo niñ ciy jariñoo. wallaahi. tajudu min xaalihi nuur xaqin wa tandafiu amaamahu zulumatul xalq wa tanjali bihi ayatul xaq kawtii fi yàlla yi day daje ci moom Sëriñ Tuubaa ayatun min ayatillahi alkubra alcheikhu nihmatun awlaha hadi alxalaaq kullaha mawlaha Cheikh Sidee Baba day ko waxoon kaw nii li xaalixil baraaya aaya damaa bëgg nga may tontu Cheikh Ibra Fall nii sëriñ boobu day doon koo xam ne walaw lam ajid ahadan mimman haadihi sifatuhu illa xabruhu la balaxani sidqu niiti fihi amali ci su ma ñëwoon bañ ne ma bàmmee la ma ngi nii moom kat dem na bu yàgg sama yéene dana taxawal yoonu murit ah. Ah, kon deux hommes une même mission mm-hmm. sëñ Basiru day ko wax te foofu seex bi la jekk wane na ni jekku naa wane njariñ ci kooku ba nu mu mën a mel ak nu mu mën a feeñee waaw ah. ma fexe ba ba jukki njariñ li mu doon léegi nag daa di bëgg jaayante ak sëriñ bi ci. Serigne xam nga si Mor Ndisa li ma nga dem ca am. am asasi. Mm. asasi ca déwén sa. Mm-hmm. yoonu murid door a taxaw. muy asasi. awwal mabtada bihil xadiimu. wallaahi taxalluqun bi man lahu taqdiimu. Mm-hmm. summa azhara alxidmata ama jeesisi. Mm-hmm. wal qalbu admaraha ama asasi. mun salixan fee jeesi. min xayri rabbi wara xadiima usni xayri. ca déwén sa. waaw yoonu murid am na at. ak juróom-ñaari weer Cheikh Ibra Fall door at ak juróom weer. Ah, Cheikh Ibra Fall door a Seydou Fadou ba mu ngi koy wër. di ko seet di ko nemmiku ci nit yàlla yi ci kàngami dem na dem gànnaar di ko seeti. di seet ku yooyu mu wax daje. ku yooyu daje waaw daje ci moom. mu dem tey ba ndaxaar di ko seet. dem na fi Badar Gueye fanaan ci armeel ya bàmmeel bu jigéen moo ko yee ci guddi gën na ko ki ngay seet mu ngi ci xibla ak bawal. Hmm? keroog lañ mooy yuqi ba mu tiim adduna ñuy yuqi sëñ ba mu tiim adduna kaala gay laas ñu naa ma nga nee. yor njëriñ ndekk duy caaxaan kat. déedéet. Mm-hmm. cey séeréer bi. Mm-hmm. bi mu ñëwee suñ Cheikh Ndigal nee ma ñeenti fan lañ njëkk a gise ciw koor. Mm-hmm. moog sëñ Tuubaa daanañ ko màggal sax ci ñeenti fan. dëgg la. Mm. procédure ba nag moo dem ba ca ñaar fukki fani koor ga. mu tolloog nag Serigne Touba wax ni. amara ni bi an usharriha bi anani bii himan wa malaasun wa mafzon wala wa mafzon wa malaasun mhm. fa kullu man araada al xayra fii kilti daarini fal yelus bii moom nga waaw Sëriñ Tuubaa ne rasulullahi nee na ma mhm. naa soppi aw tëralin mhm. te yar njaboot gi ci yitte Cheikh Ibra Fall ñëw indi yitte maa ngay tontu ca mbindum sëñ Basiiru dëgg la walaw lam ajid ahadan mimman sifatuhu la balaga nii sidqu nii tv amali ma mel ni sëriñ bi da koo laaj loo bëgg ma ne ko inni ubayyuka ala al imtisaali wal ijtinaabi wa tarxiitil himmati ilallaahi sama yitte jëpp mooy yàlla fi la gars yi rawante himmatu ilallaahi wa himmati ilallaahi wa tarxiitil himma ilallaahi sama yitte jëpp mooy egg ci yàlla te fekk sëñ Tuubaa jot ndigalul yaral ci ci yitte kii dikk moom yitte indi kon ñaari daje na dëgg la mbir mi nañ koy càmbar di ko seetantal di ko gis ko de ñaari ah. jëmm kenn lañ mu ne ko inni ubayyi'uka ko alal imtisaali mhm. jëfe ndigal wal ijtinaabi ak bàyyi tere wa tarxiitil himmati ilallaahi sama yitte jëpp egg ci yàlla rek te fekkee wutam bam naan yitte ji laa yare mhm. mu ñëw mu tontu loolu sëñ Mamadou Lamine Diop tontu ba tey ne bi sëñ tubaa waxee loolu ci àjjuma jooju mhm. fa alal jamaatu ila zahabil julli wa baqaa'il qulli ñooyey daa yes nag daara joo xam ne matul ñeent fukki nit wallaahi ñi ëpp dem tuuti des fa kon ñu fa des ñëpp a dem mooy ñëpp IPIS Serigne Touba nag tontu. yaa ngi yaa ngi ci. maa ngi introduire. introduction Cheikh ah. Ibra. lim nar a feeñal. lim nar a feeñal. waaw lim ñëw ngir jàngale ko. lim ñëw ngir jàngale ko. koli boobu bi ko Serigne Touba dajjee. waaw ponkal yaa daw. kon Cheikh Ibrahima lim nar a jàngale rëy na. am na ñoo xam ne ba tey kenn xamul seen i tur xamuñu seen i sant. waaw booba lañ fayee ñoom. waaw wax na waaw bi Cheikh Ibrahima ñëwutoon it fay gi dana gën a yaatu de. ah murit bu mag bi mooy Cheikh Ibrahima. barke Sëñ Tuubaa ku am njëriñ ci Sëñ Tuubaa pourcentage la Cheikh Ibra Fall loolu mooy li wér droit ter la. daana wax ne yoon daana wax ne yoonu Sëñ Bamba maa ko wane ci ñetti arafi ji mooy ñaq ak ñuqi ak joxe. lay wax daana wax ni man Ibra Fall may dig wi ku ma jéggi weesu digg wi Eh, ku ma jéggi weesu digg waaye ku yëg si wul nag maa nga fa. Mhm. maa nga fa loolu lu leer la. Serigne Touba ne ko. ana yaa Ibrahim. law lam ajid min asaarihi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. illa manzuura haadihi nujum. Mhm. wa samaa alladi taxaqaqtu annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yanzuru ilayha. est-ce que ñoo nuroo pas-pas de. ñoo nuroo pas-pas. <laughs> lu mu ko wax mun ko. rasulilah yi mi may topp. su ma leeroon nii. moom kat asamaan si koy tiim moo may tiim rek doy na ma. doy na sëkk su ma leeree ni biddiw yi may xool ma di ko xool ca la rasulaay doon teg bëtam doy na ma. Mhm. ma mën waaw. ñu nuroo positif na ko nag ginnaaw ba nii la. laa tarju min nii fi dunya arishan yudilluka fadlan an ahlin wa daari mu ne ko mhm. nangu naa mun ko bul yaakaar nag ci jaayante gii am fi kër baa sam fi kër baa ami doom mbaar baa cinkóor kawar boo ko fi am ci baarum ngeer mel. yàlla rek lañ seq. baarum ngeer. ak ni ne ko nangu naa. moo tax jaayante leneen la. diggante boobu nag la Cheikh Ibrahima Fall indi des innovations des innovations majeures. Mm-hmm. ak jébbalu moo ko indi. Mm-hmm. moom la wax sëñ Moussa ko ne ko Moussa sëñ Moussa moo ne Cheikh Ibrahima moo ma ne. ma njëkk a jébbalu diraam. Mm-hmm. di fóon loxoom bi ci sujoot maa ko xewal ci jamonoom. sëqal ka war laxasaayu tey liggéey maa ko xewal ba mu ne cëy mhm. ci moo ko njëkk a def dëgg la ak jébbal fekkoon na fa mbooloo nag waaye nii te loolu di sunn su woo kooku nag waaw te looloo taxoon Sëñ Tuubaa woote mhm. wa jaa min aqsa al madina rajul yas'aa qaala yaa qawmi ittabi'ul mursaliin wa hum muhtaduun mooy Cheikh Ibra Fall sëñ Basiiroo ko nettali mhm. sëñ Basiiru nee fa cheikhuna radiallahu anhu lam yusir li muridihi ila tabarruki bihi wa tahdimi haalihi walakin bahrahum bi nuuri taxaquqihi bil xaqaay alqudsiyati fa haabu bihi loolu ci leeru Cheikh Ibra Fall la dikkee Sëriñ Tuubaa mastawan kenn ne ko topp ma ba màggal ma fekk boobu waajaa ngi ñëw waaw ki ko war a def waaw war koo xam ne waaw xam nga Cheikh Ibra nag mënutoon a ñàkk eh, mënta ñàkk ndax fekk fi ay kaang ak i fóore yuy jàng hmm. ak a mokkal hmm. nga xëy ne ku fi jàng indi woon ma tegtal la ñu ko man hmm. man moom yitte yegg hmm. ca yàlla hmm. ba ba noppi xëy naan topp leen ma day gën a compliqué rek kon falee Seex ne ñëw wane ni kii dañ ko war a topp kon mu xàll yoon <laughs> ko xàll de ni mu jébbuloo diir bu gàtt lañ dox mu soppi doxinu kër gi kenn nuyu sëriñ bi sol aw dàll kenn nu nuyu sëriñ bi sol mbaxana mhm. kenn du nuyu sëriñ bi te doo nuyu waalee dara mhm. kenn du nuyu sëriñ bi dugg ak say dàll ci biir kër mhm. yaa jàngoon fa ma ñu azim xurumatillah rabbi dàll yi ca biti loolu nag am ñu metti am ñu naqari waaye mooy tëral nu yàlla Cheikh la sëriñ Bassirou Mbacké wax ni fa cheikhuna lam yusir li muridihi illa tabarruki bihi wa taazimi xaalihi walakin baharahum bi nuuri taxaquqihi bil xaqaaqi ak qudsiyati fahabu bihi leer gi nekk ci yàlla mu duy ko ci ab jaamam muy Serigne Touba mii leer googu moo daan damm yeeli képp ku gis Serigne Touba damm say oom loolu nag Cheikh Ibra Fall ci moom la tàmbalee nee na xaqaa alayya siqatun nee na ku mu ay waxam mooma ni Serigne Touba it nettali ne ma xaq wa xakaahu lii cheikhuna radiallahu anhu annahu kaana mahu fi fi safarin fi baadi arbaade mbakki kajoor yuridu salaata فشرع شيخنا رضي الله عنه يتوضأ فأخذ المريد يتعرض يديه للماء الساقط يشربه ويتدلك به Sëriñ Basiru nee ku ma weddi nag weddil Sëriñ Basiru nee Sëriñ Tuubaa moo ko ne Cheikh Ibra Fall laa njëkk a gise ku may màggal ba bu may jàpp muy dëkk samam njàppit di ko naan ak di ko diw mm-hmm. ci mu dëpp la saxaaba ya daan def ci yónnente ba sunna soo kong loolu Musaa na jàpp ñuy xëccoon euh, njàppit ma mm-hmm. ak Musaana Tifli ñu koy njëkkante bay xaw a rayante mhm. ñii di ko diwoo ak di ko di ko nu mu tuddatee barkeelu. wallaay kon day dellu ci waxi zunnun al misri. Mhm. laa yakunu al muridu muridan. illa baada an yakuna imtisaalihi li kalaami cheikhi aksara min imtisaali kalaamillahi taala loolu di ko ko wax ci réew mi ñu weddi la. dañ lay loo yàlla. Mhm. bookat yaa ngi may bàyyi xel. bu baax a baax yow rek laay déglu. Zunnun al Misri nee na. waaw laa yakunu al muridu muridan. wallaahi murid bu doon mukk am murid bu wér mukk. mukk. Mm-hmm. illa baad an yakuna mm-hmm. imtisaali imtisaaluhu li kalaami cheikhihi mm-hmm. jëfandikoo sa ndigalul sëriñ. day ëpp doole ci yow min imtisaalihi li kalaamillaahi. waaw. ndax laahi nga mënta jot. waaw sayxee ci mën a jot. waaw kon da ngay jéem a jot ki sayxi mu jottali la ci laahi. xanaa loolu la sëñ Tuubaa ne duumu walam tisaali amri rabbi. ah bi amri sayxil waasilil mu rabbi. waasilil mu rabbi ah, duumu walam tisaali amri rabbi. bi amri sayxil waasilil mu rabbi. waasilil mu rabbi. mooy kon sax leen ci di jëfe ndigalu yàlla yi. Hmm. Hmm. waaye bi is isni seexin. fa man taxallaq bi waasilil masal ci ci ndigalu sëriñ. fa man taxallaq bi xaq si ngeen fasal. ko wax de. Ah, wallaahi Cheikh nag diggante boobu ci la rëppatal nag bàmb ji mi ngi tàmbalee wane yoon wi ñu ciy jëriñoo. ñi tëb ñi rët. ñu bari génn. kon foofu daal li mu njëkk a feeñal moom. waaw mooy war ma yi yi ñu war a jox sëñ bi. Mhm. lu njëkk a feeñal. war ma yi ñu war a jox sëriñ bi. mooy respect. respect war ma bi te nit mbir nag moom. boo ko warmaalul mënoo cee jëriñ te alxuraan uh-huh. wa rasulihi wattaqullaha inna allaha samiun alim inna allaha samiun alim kon li ñuy waxante di ko déyante uh-huh. sunu borom ma ngi koy dégg dëgg la kon buñ jiitu yonent bi cib atteem fekk yàlla dikkagul atte buñ jiitu yonent bi yaa ayyuha allazina amanu laa tarfau aswaatakum uh-huh. fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri bahadikum li bahadin an tahbata ahmalukum antum laa tashkurun ñu amee ci ab alladina aswaatahum lu leen ci yàlla faye inda rasulillahi ulaayka alladina xulubuhum li taqwa mm-hmm. kon Cheikh Ibra Fall am na cër mooy bu bu ngeen di wax ak yonent bi seen baat bu mu jëm kaw mm-hmm. loolu la indi ci daal bu leen taxaw di ko tiim mm-hmm. saxaaba ya yeggoon ci nag eh, xër ci moom xërin woo xamante ak warmaal ko mbooy ba li Sëñ Saali wax ndax Quraan in ma mas xam nga moo nettal loolu nee na fa wallaahi. waaw maata naxama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. waaw nuqaamatan. Mm-hmm. Mm-hmm. illaa waqaxat fi kaffi rajuli minha mm-hmm. fa dallaka biha wajhahu wa jildahu. nee moom mësta gis. yonente bi xaxtandiku xaxtandiku ba laal suuf. nee na lu may ni saxaaba ya dañ koy capté ci seen i tenki loxo. fa dallaka biha wajhahu wa jildahu. nee di ko diwoo ci seen kanam ak seen loxo. kon sëñ Basiirou bu ne. màggale ko sëriñ Basiirou bu ne. waaw wa minal hajaibi. Ah. li ma ci gën a yéem hmm. wal muriidu hmm. lam yara bi xay nay yi hmm. man yaf aluhu Serigne Touba Serigne Bassirou nee na Serigne tubaa ko ne murit bii ma koy defal mu Ibra Fall fekkul ci jamono kum ko roye kon moo def kon ah wax de ci kenn moom te ñëpp gise ko ci yow yaa ko njëkk njëkk def wala fil kutubi gisuñu koy ci téere yi Serigne wax dëgg kon la saxaaba yi daan defal rasulullahi la Cheikh Ibra Fall ñëw yeesalaat ko Serigne ci Serigne Touba xanaa kon mooy wane ne Cheikh xam ni kon kii Rasulullah jamono. Ah. kon moo ko doon. moo ko doon kon ñu ñëw ci sëriñ bi. Hmm. ci bi mu dikkee leer gi xuy ci sëriñ bi di tàndang di leer. di xuy hmm. Cheikh Ibra da ciy teg bët di ko xool moom. Hmm. Ah, di ko gis di ko gis. imaami lazi sayyartani xaadiman lahu bi nasmin wa nasrin waltu nawil bihil qalba Cheikh Ibra Fall Sëriñ Tuubaa bu mu neen allahu akbar rasulullah ne jaleñ Cheikh Ibra Fall da ko daan seen. leer googoo taxoon. ba ku jiite sëriñ bi sëriñ bi mbaaxam yeggoon na ci comme mu seet sax mbaax ba doy loola ne la jiiteel. Hmm. Cheikh Ibra Fall loolu da koy bañ du ko nangu. léeg-léeg dugg ci sàppe yi ku sëgg ma nangam ku siggi nangam. Hmm. léeg-léeg waaw. yàq hmm. ji yomb lool. sëriñ bi mbaaxam gi yegg na ci ku seet nga baax rek mu jiital la. baax rek attan di ma moom moom. ndax. du taw ujaddidu tawhida wal furuha ma tasawufin xawa buruha fii la sëriñ bi ne. léeg-léeg nag sëriñ bi. bëggul coow am ci jàkk ji day génn rek na ko Ibra Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko yéegal ci garab gi xaar na ban julli ba noppi hmm. kon de jullewu ko far ko jox ndigal ko wax da Ibra Fall ci garab gi xaar ban julli ba noppi loolu nag tax na ba am na fi diir boo xam ne kenn gis ko ci daara ji gannaaw bu sëriñ bi woote na rasulullahi dikk na fi ñëw na fi nee na naa woote naa soppi aw doxalin laxat shafahani rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi rabbi ashaabaka bil himma loolu indi coow mbooloo ma dem Cheikh Rafal na am na fi ñaar fukki fan yoo xam ne kenn gis ko ci daara ji hmm. day xëy ci àll bi di leen ñëw betti aw sayam xambal sëriñ bi muy bind mu ne ci boromam di wër kees gi mu nekk tudd yàlla hmm. jamono boobu la sëñ Tuubaa ne afdalu taamin lil muridi saliki dawaamu zikril ma dawaamu dawaamu zil mulki dawaamu mulki dawaamu zikri zil jalaali zil xam ni tudd yàlla di ko màggal sëriñ bi léeg-léeg mu génn ci jàkk ji toog ci diggante bi gaa yi tudd yàlla mu ànd ak ñoom léeg-léeg mu ne jekki leen ñu jekki mu di leen waar ci seen borom ba yàgg mu ne wëyal leen diggante boobu nag am na fi ñaari fukki fan yoo xam ne kenn gisul Cheikh Ibra. dégg naa ne moo daan jiite sikar sax sëñ Tuubaa. Hmm. waaw sëriñ bi daana jiite sikar. Hmm. Cheikh Ibra Fall daana ko defal sëriñ mu ne ci biir di bind mu di ko wër di tudd yàlla. Hmm. yàggoon nañ sax ne ko war ngaa wax ak moom kat ndax daa bari kàttan bari doole day yendoo liggéey te bu guddee mu duna wër di tudd yàlla bés bu xelam demee ci moray daara ji da ngay xëy fekk ñëpp faatu. <laughs> dañ ko daan xel Cheikh daawul nag mu ñàkk war ma ci biir kër sëriñ bi mhm. diggante boobu nag sëriñ bee toog ba yàgg ne Mouhamadou Lamine mhm. ki fi jibbalu bu yàggul Ibrahima ndax yéen a ngi koy gis mu ne ko fan yii de kenn gis ko ci daara ji hmm. sëriñ bi daal di yónni sëñ Adama Gueye ne ko Adama Gueye sëñ Adama Gueye demal seetal ma ko mu di ko wër di ko wër ba gis ko ne ko kaay sëriñ bi àll bi Cheikh Ibra Fall ne fi la rab ak buum yow ko ci baatam ñëw ba ci biir këru Mbàkke Kajoor gi daan na sëriñ bi juróom-ñaari mètre raam ni gisig di lamsal nu ngu koo xool dënn bii riir jël buum gi teg ci loxol sëriñ bi sëriñ bi ne ko ah lii lu mu doon Ibrahima Fall sëriñ Cheikh Ibra ne ko tey la lan mu ne ko tey la juróom-ñeenti fan ci sëriñ bi ne ko tey la juróom-ñeenti fan ci tabaski Cheikh Ibra Fall ne ko kon suba la lan sëriñ bi ne ko fukki fan ciw tabaski mu ne ko mu ngoog man sam tabaski la bu neexee borom mu rendi bu neexee ma sarax mu ci defal baax na. loolu xanaa day firi jébbalu moom gu mat sëkk moom. joxe léppam. wallaahi mm. la mu ne si Adama Gueye am ngeen gan. am ngeen gan moos. Adama Gueye am ngeen gan diggante boobu nag fi la Cheikh Rafal la yoonu murit wane leen sëriñ moom ca kaw. Mm. dong yi ci suuf. kon képp koo xam ne am nga daraja. yaakaar ne Serigne Touba mii mooy sa kilifa. Mm. def ko muy sa kilifa. Mm. waaw Cheikh Ibrahima nag loolu kenn da ko ciy jëkkul. Mm. Mbàkke Kajoor googu lim fa wane ci passeef ak dëggu ak yar akuk taalibe ak teg Serigne bi ci kaw loolu mooy li alxuraan indi woon. dëgg la. bu leen joor rasulay ci ginnaaw sàkket bi. inna alladina yunaaduunaka min warai lxujuraat aksaruhum laa yaaqiluun walaw annahum sabaru xataa taxruju ilayhim la kaana xayran lahum wallahu gafuur rahim léegi nag Cheikh Rafal du nangu ku toog ca gannaaw di joor sëriñ bi mm. dañ daan toog ba ak ñuy fëgg rasulullah ci ginnaaw Muhammad dañoo fàtte suñu jaasi dañoo fàtte suñu yat suñu borom naa bu leen ko defati mos tey diggante boobu nag fii la Cheikh Rafal indee pas-pas bi mu bëgg ci sëriñ bi mm. a a lu mu liggéey jox ko lu mu am jox ko di ko jur addi di liggéey di indi di yar njaboot gi di yar taalibe yi te lu mu am jox sëriñ bi doom ji jur tudde sëriñ bi balaa tudd laaj sëriñ bi aw tur xanaa loolu mooy yoon taalibe dëgg la hmm. daa am leneen lu dul loolu léegi nag yàlla dogal at lañ fa def ba at ak tuuti daaru salaam fay ndax fay xat na hmm. loolu lépp Mbacke Kajoor la woon. lii ma la wax lépp ci Mbacke Kajoor la. nga xam ne dafa indi une élévation de conscience. Mhm. conscientiser waat ci kii nu am mooy kan. Ah, ak nuñ ko a gis na kon Cheikh Ibrahima Fall fi mu commencé. Mhm. mooy commencement ba lañ naan commencement commencé par le commencement. waaw waaw tubaab moo koy wax. moo di wax ne gaa yi yeggoon ci yàlla bu njëkk am yàlla. Mhm. amee wuñ ko ci julli yu bari. ak yu bari ak asaka yu bari ak aj màkk. mooy xam ne kat. wasaxa anna awliya alwaasiliin maa wasaloo ila ilahi alamin bi kasrati l ahmaali kasalaati wa hajji baytillahi wa sakkaati daa mel dañ ko laaj noonu ko amee waaw bi ñu ko laajee nag comme amuñ ko ci yoon ni ñu ko amee Sëñ Tuubaa bi ñu wax juróom yi ñu ko amee li mu njëkk a tudd mooy point bi nga xam ne séexéero moom la njëkk a jàngal Mbàkke Kajoor mm -hmm. mooy xis li xurmati mm -hmm. mooy li ngay wutee yàlla ki ngay wutee yàlla tam mm -hmm. sëriñ bu mat sëriñ boobu yàlla nekk ci moom loo ko gën a jox war maam mhm. gën koo jox aqam mhm. gën koo fonk mhm. nee na gën a am yàlla gën a yegg dëgg la mu xistu li hurmati la jiital teg kem ni nga ko war maa la yitte gi toll na xidmatin nga rafetal nag sa di sant xéewal loolu nag loolu nag Zunnun al Misri da cee tontu Cheikh Rafal tontu ci. nga ni maa wasala. waaw ilal xaqi man wasala. Hmm. illa bi hifzil xurmati. wa maa turida man turida illa bi tarkil xurmati. Hmm. ñi egg ci yàlla ñëpp. Hmm. am warma ak i teggin. moo leen tax egg ci yàlla. dëgg la ña eggul ci yàlla. ñàkk teggin moo leen génn ci diiwaan ba. dëgg la ci wax nga dëgg. te Cheikh wax na ni. ba tey maa ngi tolo waxu Zunnun al Misri. dafa wax ni. ma aazallahu abdan illa araahu xaqaarata nafsihi ab jaam ab jaam saa jàppee ni moom am na tedd nga ci bindee fi baa fa suñ borom ah. torox na torox na doon dëgg dëgg la wa maa xaqara abdun illa jaala nafsuhu alayhi azizan wallahi kenn du am tedd nga fa yàlla lu dul da ngaa doy bopp dëgg la waaye fal sa bopp Cheikh Ibra lii la indi mooy ak mooy ak taalube bi mu ne jàppee am nga ko rek ñàkk nga ñàkk nga wax na ko bi mu ñëwee nag li indi ci daara ji mhm. mooy tarbiya waaw tarbiya juróomi araf la taxan root buub yalwaan nga dëgg waaw dëkk yi liggéey fanaane root moom la di ci daara ji am ñuy baatal Cheikh Ibra naan ko jigéen duy sëy sax naan du sëy nii Cheikh Ibra di fóotal sëriñ bi soxna Faat Silla ak Cheikh Ibra moom sëñ ma ñaw Silla daan nañ fóotal sëriñ bu mag bi nga xam ne daa feeñal xidma xidma dafay fekk xibaada moom waaw mooy jaamu yàlla ñëpp ko bokk waaw waaye mu ñëw fekk fi xidma mhm. ku amul sëñ tubaa nag mënoo xidma léegi nag xidma jooju Sëriñ Tubaa waxoon ni wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma uh-huh. mooy Cheikh Ibra Fall mhm. te xidmaay jëriñ mooy tax a jëriñ ci Sëriñ Tubaa ah. ah, waq di xawaa ijël la si na daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu fi ibadati waaye fi xidmati fi xidmati yàlla lañ koy defal ibaada yàlla lañ koy defal xidma sëriñ bi Cheikh Ibra Fall tontu mhm. daal ni sa sëriñ na ngeen xemmam sëriñ si maa ngi leen di xemmam loo sëriñ si sa maytuhu jëzbal muridi ila xidmatil ashyaax tudde naa sama téere bii jëzbul murid ngir ñu liggéeyal sëriñ si waaye Cheikh Rafal san sëriñ ngay wax mu ne leen ñu egg ci yàlla ñu egg ci yàlla ñooñu laay wax dëgg la ma lay de hmm. yax wi diya an ka daw isam si xëy su naxaa ca laa jëm sëriñ bi Cheikh Fall ko gisee sëriñ Tuubaa mi donn Rasulullah tañ war koo wagar jox ko war ma moom la Cheikh Fall di préparer terrain bi waaw tàmbalee root moom ndax waaja daa waxoon ni lépp lu nit di digle dañ caa war a jiitu nekk ca door koo digle waaw bi shay'in illa an takuna awwal ca da ngay set mhm. nekk ci taxan mhm. root buub yalwaan dunde liggéey jox sëriñ bi nga xam ne moom dafa jébbale boppam ba mu jeex takk mu am lépp la jox sëriñ bi alxuraan ji mu indaale bëggu cee xam aw araf te xam nga loolu mooy xul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum daa tontu sax Sëñ Tuubaa al muriidu man laa yamliku shay'an wala yamliku shay'un takunu muriidan summa fiika iraadatu fa in lam takun muriidan fa anta muriidu waaw fa in lam turid shay'an fa anta mariidu lam turid shay'an fa anta mariidu ah, mu ngoog mhm. kon moom lim indi mooy loolu tarbiya nu ñuy jëriñoo ci Serigne tubaa mm-hmm. ndax Serigne tubaa bu doon ab jaaru tëgg bi tëgg na ko ba mu rafet waaye amul ko ko takk ci loxo bi wallaahi Cheikh Ibrahima di ñëw di wane nu ñu koy takkee ba mu rafet nu ñu koy takkee ba mu rafet mm-hmm. nu ñuy jëriñoo ci moom mm-hmm. kon képp ku jëriñu Boubacar waaw waaw képp ku jëriñu ci Cheikh Amadou Bamba santal Cheikh Ibrahima wallaahi wallaahi loolu la wér diggante boobu day liggéey ci àll bi ba xorom si yàq mbub mi hmm? xelam delluwaat ci dëkk bi wut mbubb delluwaat ci liggéey bi hmm. mu gàddu simiñam romb guy goo xam ne dañ koo cëgg ba dàtt bi feeñ mu ne guy gii de du gën a gore xam naa ni balaa déwén sunu borom fekkat ko fi waddu ko kon naa delluwaat ci liggéey sëñ Bamba wax nañ ne sunu borom dogal na ci diir boobu am na ñu ko fekk ci àll bi indil ko piisi may luus jaayante gaa tax. waaw daa dëgg ci lépp loo am xolu attana koo ñàkk ngir yàlla. waalamu anna al fawaida mm-hmm. ala al aqaidi mm-hmm. wala yantafiu man laa yaxtaqidi. Mm-hmm. looloo wér. pas-pas yii nag. la Cheikh Rofal indi sëñ Boubacar. wane nu ñuy jëriñoo ci kii. dëgg la kenn lu lekkandoo ak moom. kenn du toogandoo ak moom ci kaw. te sëñ Tuubaa teewoon na sa kilifa. sa mag baa sa ndey baa sa baay. bul toogandoo ak moom ci benn barab. Cheikh Rofal ni kii ca kaw lay ne. wallaay néeg bu mu dugg kenn bu ca dugg lu dul da ngaa yëglu ba mu jox la ndigal su la joxee ndigal nga yëg su la joxul ndigal nga dellu mm-hmm. diggante mbàkki kajoor googu léeg-léeg daana wut neefaree mbaam àll wut aw yat ak mbaxana teg ko ci buntu néeg sëñ bi bu liggéeyee ci àll bi ba ñëw sëriñ bi diggante bi muy baagante kees gee jëm ci kees gee mm-hmm. léeg-léeg mu ku fi indi lii ñu ko ah, laaj ko sa waa ji ba xam sëriñ bi woo la ko ne ko waaw Ibrahima ana lii ku fi indi mu ne ko man de maa ko fi indi mu ne ko loo koy doyee mu ne ko damaa bëggoon ku fi sol loolu yi ma jël sama këf kii gàcc gàcc la ko ba nga def nii. ndefaree maam àll. <laughs> ak mbaxana. ak mbaxana ku fiy def mbaxana mii. ma jël sama kë yat wii gàcc gàccal la ko ba nga def lu mel nii. wax na dëgg sëriñ bi mooñ tontuwul fenetal te loolu yërmande juree tax ndax borom daraja ci yàlla ñàkk koo war warmaal day wàññi jëf ya nga doon jëf ci yàlla xam nga yàlla bi mu ne bi mu ne saxaaba bu ngeen di wax ak yonent bi bu leen bu leen seen kàddu bu mu tiim kàddoom xam nga lu mu ci teg bu ngeen ko dee def seen jëf yi ngeen jëfoon ci yàlla day wàññeeku te du ngeen ko yëg day far day far waa léegi xam nga lan moo mat a xam hmm. mooy yow bi ngay jaamu yàlla hmm. sa diggante ak yàlla la hmm. waaye ñàkk wormaal yonent bi tax na la la yàlla nanguloon da koy far te yow doo ko yëg kon xam nga ni kon am na rapport bu dox diggante yàlla ak yonent bi bu la concerné ndax dégg nga wax ji léegi koo xam ne boo ko ñàkkee wormaal sa julli ya nga julli woon ak koor ya nga kooroon yàlla far ko kon mhm. boo ko wormaalee yàlla defal la yool wu ni toll mbaa bu ko am ñu nag mhm. moo tax mu indi teg ca ma ñambaas ba tey mhm. nee na laa takon jostika in indahu xawaa ijika dunyawiyati wax na dëgg sa sëriñ bul jàmbat ci kanam mbiri àdduna Hmm? bul wax ci kanamam hmm. mbiri àdduna hmm. sama kër gaag sama doom yaag sama mbub maag nee na bul ko def bul ko dee kon an taxabata ahmalukum antum laa tasurun joojee lay Cheikh Fall di tontu léegi nag sëriñ bii muy wax mooy kan bañ war koo def nii maa ngi ñaan téléspectateurs yi ñu ubbil ñu ligne bi boo ko defee mbokk yi nag ki bëgg dugg ci waxtaan wi mën cee dugg ndax sëñ Moustapha li muy wax am na solo. dañu bëgg a ko. waaw waaw. ay ca sëñ Moustapha. sëñ si Moustapha. Cheikh ah fi ne nag xam naa ne moom réew maa ngi yëngatu moom. incha allah incha allah te spectateurs yi. Hmm. ñëpp bëgg nañ xaar waaw nii nga ñëwee ki Cheikh ak wet gi nga ci ñëwee ak façon bii nga ci ñëwee mhm. loolu dafa raar mhm. tegu na ci xam-xam tegu ci taalibe tegu ci yar tegu ci te teggin mhm. njàngale mi leer na jege na mënees na koo dégg mënees na koo dégg waaw introduire nga ñu introduction bu rëy na ci Mbàkke Kajoor dong la ni ko gunde wala ñu ngi diree ko jëm Daaru Salaam àggagul Daaru Salaam waaye ñëwagul diggante <laughs> bi sëñ bi tukkee de demagul foofu waaye ñëwagul ci euh, waagu njëkk ga sax ñëwagul ci sanc ba Cheikh Ibra Ndar waaw biir Ndar ah. waaye ñëwagul gànnaar waaye waaye ñëwagul it Cheikh Ibra bërëb ku tedd kii mhm. yi nga xam ni ku tedd ki da koo safoo lool mhm. nga xam ni yëm ca gën a safoo mhm. Cheikh Ibra ko gor moo ko sañ doon ñëwagu ci yooyu ñëwagu ci waaw xam nga Cheikh Ibra Fall kon ñu ubbil ñu ànd ak mbokk yi waaw maam Cheikh sunu maam di baax di ko waxtaani mooy njëriñ mooy njëriñ wax dëgg dundam gi mënee su koo waxtaani ci benn jataay dëgg la gis nga Mbàkke Kajoor gii li fi xew rek li fi Cheikh Ibra indi mooy hmm. dox ci yoonu murit ba tey mooy dox lu ngeen gis mu baax ci yoonu murit Mbàkke Kajoor la sosoo wallaahi Cheikh bu ngeen gisee hmm. mu daan wax ne doomi sëñ ba sax doomi sëñ Bàmba kenn du ko ne kaay ma yónni la doomi sëñ Bàmba moo naan kaay ma yónni la doomi sëñ Bàmba ku ko ŋàbbal sa tala mu jàpp bu gestoo nga tax ko loo dul tàggool la boobu séntu woon ne jamono danañ dem ba yegg si fii. ndax mel ni am na mbokk mu nekk ci ligne bi kon mbokk bi bismillah. waaleykum. si. waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ danga def ñoo ngi sant yàlla bu baax mbokk bi ñoo bu dañoo. ay ay ca bismillah. kon képp koo xam ni woote nga dangay bañ a dégloo sa télé da ngay dégloo ci sa téléphone nga wàññi sa télé ba mu ba mu jeex tàkk ba ko defee ñu mën a saafonteeg sëñ Moustapha borom waxtaan wu neex bi lay kon doomi sëñ bi bi la seex yu ak na ni gaa ñi song nañ la nag ci ligne bi ay ca bismillah mbokk mi kon ñu yokkal ñu euh, ñu yokkal ñu son bi waa régie bi ah na ni kooku dem na xam naa gaa ñi ñoo songandoo ligne bi. wallaay sëñ Moustapha waaw doomi sëñ bi sëñ bi. la ah, nee na Cheikh Ibrahima jàngale doomi sëñ bi dañ ciy. doomi sëñ bi sëñ bi xool sëriñ bi. Mm-hmm. doomi sëñ bi. bu mm-hmm. arab di wax ne alwaladu sirru abihi. Mm-hmm. Cheikh Ibra Fall da koo yàgg dëkkal moom. sëriñ Touba leer gi fi moom du fi taxaw ba yomal xiyam. dëgg la barakat yi. waasiatun wa baaqiya baqa mulki zibaati safiya du fi ah. sama barke ngi fi sax doomam yi nag xaside yi niy màggal xaside yi. xaside yi waaw mbind mi. waaw am na doole lool fa yàlla. waaye mhm. ah, deret ji nag. boo màggalee mbind mi de war a fa bàyyi deret ji. nag. Mhm. Cheikh Ibra Fall yoonu tarbiya. Mhm. sëriñ bi dangay nangoo wetti saw ñaq xidma ndax lii mu yor mu mën la koo jox te fekk booba. suñ borom duy na ko leer ba mu fees ndax yahwi diyaan ka daw i shamsi xaysu naha yaxza biha kullu shaxsin zistinaarati te yaxibu an kulli kawnin lil mukawini za nuurin azimin wa sirin min xuyubaati dëgg la ab sëriñ bu mat sëriñ léeg-léeg dana ne fii te fekk fàddu na mu nga faneen dëgg la wallaahi ne fa di faj aajo Cheikh Fall teel naa xam loolu sëriñ Tuubaa te it sëriñ boobee yamxu anil qalbi reynan qad yudanisuhu maxwal mu xasili an saw bi najasaati Mm-hmm. sëriñ bu mat sëriñ. Mm-hmm. Cheikh Ibra Fall nag dana koo fiir ci prix mu leer. Mm-hmm. Boubacar Cheikh Ibra Fall nee na. waaw kee ñu leen doon juñu naan la li anna salaata isa fatal muftar fatal fatal fatal fatal fatal farlu baxa alqada bi ay waatin siida <laughs> nee na loolu daal xam nga benn baat la. daal ne póotam tey. Ah. jantum démb du ko du ko wowal pootum tay naaju démb naaju démb ah. mënu koo wowal naaju tay rek kon mooy wowal loolu la loolu la zunnoon di wax ne li an na samsi la tuddi ko bi samsi wax nga dëgg. waxi nitu yàlla lu baatine la. Ah, alxuraan la wala kilifa min haadi. ah wallaay ndeysaan yaa ko wax de. Mm-hmm. kon moom la mu doon wax daf laa bëgg xamal ni àdduna ji dañ fiy liggéey ay tool la fa ñuy jariñoo mooy faya. innama dunya laysa bi daaril jazaa. moo tax mu ne war xab Cheikh Ibra Fall war xab na nga xemmam bi ma indallaahi wa rasuulihi xemmam leen la ne fa yàlla ak yonti bi. wala tën sa daaraka Boubacar. Mm. Cheikh Ibra nee na bul fàtte sa këru ëllëg. déedéet. in nasiitahu wajidtahu wajadtahu ramiman nee na ko fàtte sa kërug bi nga fekk mu rab dëgg la aanu nooy def hmm. mu ne na ngeen xemmam sëriñ bi te liggéeyal ko coy maam Cheikh ni ñuy jariñoo ci sëriñ bi yaa ma ko laaj kon nu ñuy ni muy leeral mën ngeen a ànd ak ñun bi bu ko defee régie bi ñu affiché leen numéro yi bu ko defee ñu saafonteeg mbokk yi ndax ci jotaay bi lañu bokk kon nañ leen yokkal rajo bi te ku hmm. woote ngay dégloo ci sa téléphone te bañ a dégloo ci télé bi ngir ñu saafonteeg euh, Moustapha waaw boobu ba tey mi ngi toll ci. ci Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee. bëgg a wane ni ñuy jëriñoo ci Sëñ Tuubaa. Mhm. daa njëkk a wane njëriñ li Sëñ Tuubaa doon. njëriñ li mu doon. boobu ba tey nag ngi wane ni kii njëriñ la loo xam ni. Mhm. ba ñu cee mën a jëriñ dañuy njëkk yëg njëriñ li mu doon. dëgg la. bu noppee na daal di xàll nag yoon wi ni jaar ngir jëriñoo njëriñ li. te loolu nekk école bu rëy. école bu mag a bokk. ndax école boo xam ni. Mhm. maanaam bi Sëñ Tuubaa génnee matière bu njëkk bi. ay xaafis la fa fekk. Euh, ne nekkatuñ ci daara ji ngeen mokkal masala déedéet ndax lépp luy masalam diine mokkal nañ ko wallaahi léegi sëñ Tuubaa dajji kuli bu yees peq boo xam ne Seex Ibra moo ko war a jàngale moo ko jàngale maanaam de l'éducation livresque on est passé à l'éducation spirituelle mm-hmm. mooy jàng nañ ba ni ar nag léegi mm-hmm. masala yi mokkal nañ ko xam nañ julli ku yàqu nuñ koy defaree waaye yegg ci yàlla nag mooy yitte ji Seex mm-hmm. Ibra jàngale loolu kon mbokk mi ci ligne bi bismillah asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah waaw ñu ngi ziar bu baax. yàlla yàlla nangu ziar mbokk mi noo tudd ak fooy wootee. waaw man maa ngi tudd Pape Pape Iba Diouf. Pape Iba Diouf. waaw maa ngi wootee fii euh, Kër Mbaye Fall. an ndeysaan nuyul ñu waa Kër Mbaye Fall. gépp waaw waaw mu ngi noonu di mbokk taalibe di taalibe Serigne Béthio. ndeysaan jërëjëf. waaw mi ngi noonu di seen mbokk taalibe den nekk sama jëwriñ daanaka man plateau bi tey. ñu fa teew ñëpp samay jëwriñ lañu samay kilifa lañu. ndeysaan ndeysaan. waaw waaw sëñ Moustapha moomu mooy denc sama sama tante. an ah, ndeysaan soxna Ayda. saan waaw sëñ sëriñ Saliou moomu. Mm-hmm. daanaka sama ñaari tur tànk yi ma am yëpp moom moo leen tudd. ci ndigalu sëriñ Béthio moo leen tudd ndeysaan. waaw muy soxna Mabousso ak soxna Fatou. wallaay wallaay maa ngi leen di nuyu bu baax wallaay ñu ngi tuddee sama waajur. wallaay ndeysaan waaw ñu ngi siyaar bu baax di rafetlu jotaay bi sëñ Sall. Uh-huh. waaw sëñ Saal maa ngi lay siyaar bu baax a baax. yàlla na yàlla boole na yàlla. waaw di rafetlu jotaay bi bu baax di leen sant bu baax te di leen ñaanal. Ah, waaw mi ngi noonu jotaay bi neex na lool. njaboot gi yëpp mu ngi koy ànd ak yéen. dëgg la waaw ñoom soxna janga ñoom suñu woy jur Hmm. ak soxna Adja Seck suñu tante nga xamante ni ñoom ñoo ñu leen sopp lañu wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi koy àndeek yéen di rafetlu jotaay bi dëgg la dëgg la waaw jërëjëf jëf jërëjëf kon dañ ñëwoon nanu woote rek siyaar leen sant leen bu baax ndeysaan def nga lu baax waaw jërëjëf Pape Iba Diouf ñoo ngi lay nuyu di la bëgg sabaa jërëjëf may Fall gépp nag jërëjëf waaw leen di siyaar bu baax kon mbokk moomu di Pape Iba Diouf hmm. di sa goro waaw góor Pape Iba ndeysaan ndeysaan <laughs> Cheikh Ibra Fall ku ko xamul do sëñ Saliou mel na ni gaañ dañoo song ligne bi waaye ci lañ bokk nag ci lañ bokk fi mu soade yi na daaneel nag ndeysaan kon moo yëmbul salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah waaw jërëjëf ñu yàlla yàlla yàlla nangu ziar waaw suñu saa sekk de lañu bëggoon saafante ndeysaan bismillah mbokk mi noo tudd ak fooy wootee am di Moustapha Ndaw ndeysaan sëñ Moustapha ah, Ndaw. waaw fekk ñu ngi lay siyaar Dóoré. Ndaw Cheikh Moustapha. waaw ñu ngi seede bi di leen ndokkeel ci xam-xam moom bi sell na lool fekk. Hmm. yow moom ñëpp xam na xam sa xam nañ sa taalibe. ci hmm. kër sëñ bi. Hmm. waaw xam nañ sa xam-xam ak sa bëgg sëñ Tuubaa. mooy ñun taalibe seen seen digal yow yaay suñu fierté. Mm-hmm. ndeysaan. Mm-hmm. waaw dëgg yàlla ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di la ñaanal suñu borom euh, dëgëral xam-xam. amiin yaa rabbal aalamiin waaw rawatina ak taalibe gi maanaam xam-xam lépp daal ci taalibe. wallaay taalibe gi ëpp lépp. waaw nga ko muur daal wax dëgg yàlla dañuy rafetlu jotaay bi. wallaay ndeysaan. waaw di saar mboolem murid yi nekk ci plateau bi waaw. jërëjëf ndaw sëñ Moussa moom suñu jëwriñ la moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñu bari ci kër mm-hmm. sëñ bi moo ñu taataan ci xam-xam. Mm-hmm. dëgg la. waaw jotaayam moom danga nga ciy jàngat bu baax kan mooy Serigne Touba kan mooy Mame Cheikh këram tamit mooy mooy daa daaray Baye Fall yi soo fa demee di nga géej ci xam-xam. moo tax jotaay yi moom bu amee dañuy sawar lool di ko seetaan. di ko suivre suñu yéene mooy mbokk taal yëpp dañ ciy bëgg a dugg waaye du koy mën a dugg. waaye ñëpp a ngi lay suivre ñëpp lay seetaan. dëgg la di rafetlu taxawaay bi. waaw. jërëjëf Ndaw. jërëjëf kon mbokk si Moussa jërëjëf. ndeysaan wallaay ndeysaan. sama xarit la sama mhm. wëllëre la. Mhm. Mhm. te it taalibi Serigne Cheikh Ndigal la. d'accord fa baax rek. waaye kon nu woon ci. nu ñuy jëriñoo ci sëriñ bi. waaye mel na ne am na mbokk bu a ci ligne bi. sëñ Moussa daa daaneel murid yi daaneel rek. xam naa ne yow sëñ Moussa faaw ñu nekkaat fi hmm. ay jotaay bismillah mbokk mi. Moussa daa rey yàlla nañ sëñ boole yool bi noo tudd ak fooy wootee. maam Bambi Sène Mbour. maam Bambi Sène dëkk ca buur ñoo ngi leen nuyu yàgg waa Mbour gépp hmm. maam mbaam bi seen ñoo ngi lay déglu dafa mel ni maam Bambi seen dafa génn. waaw waaye jël sama sëriñ bu baax la. wallaay ndeysaan. ndeysaan ah mel na ni nag euh, sëñ Moustapha waa kër sëñ Ndigal ak mboolem seen baay Fall yëpp a ngi lay déglu. ndeysaan te xol yëpp tooy na. tey ku bëgg sëñ Touba rek sa xol tooy. alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi jëriñoo ci sëñ Touba di ci nga toog. aywa murid yi di bàyyeeguñu. la ilaha illallah. wallaay saxaar bu jubee gàll plateau bi ma ma. saxaar bu jubee gàll waaw day corne day corne wallaay. jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf ñu mënee jariñu rek. Uh-huh. dañu mën a xemmem sëriñ bi hmm. lépp ci moom kon ñoo ngi koy doolee sant bu baax a baax a baax. dëgg la. léegi wax dëgg yàlla. xam na ci fañ jógee da xam nañ tamit fi nga xam ne fa la fan la sëñ bi jëmee. Mm-hmm. kon ñoo ngi delloo di sant maam Cheikh yeneen bu baax a baax. man la ko de ci gindi gi ñu gindi ci leeral gi ñu leeral. Mm-hmm. lépp sañu jublaay lépp di sëriñ. dëgg la. te ko faal bu baax a baax baax. dëgg la sañu lépp ci seeti la. Mm-hmm. dëgg bëgg sañu nooy nekk fii ci àdduna lépp ci seeti ci Cheikh Ibrahima Ibrahima Fall. kon maa ngi sant bu maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di am mbégte lool ci waxtaan ñoo ngi koy teewle di ci am mbégte bu baax a baax man maa ngi tudd Seydou Ndiaye ma Ndione Kébé. Mmh. dëkk fii ci Touba ci Kër Massar. Mmh. Mmh. di ziar sama du Serigne Modou Fall. am sëñ Abdou Yacine Fall. mi nga xam ne tey moom mooy président. surtout maam Cheikh surtout maam Cheikh. président surtout maam Cheikh yenn yi nga xam ne. ñoom ñooy euh, moom mooy njiitu. dëgg la. Euh, euh, ndeysaan. gis bu waaye gis bu mu man daal moom moom damaa bëgg daal. sa xol a sedd. damaa bëgg rek. ndeysaan bëgg bëgg naa lool ci. ndeysaan ci waxtaan bi. ndeysaan ñu leen jaay jëfal baax a baax jërëjëf. ci ah sëñ Moustapha mel na ni Baye Fall gi yëngu na nag. waaw maanaam sant yàlla bu baax léegi am na keneen ku nekk ci ligne bi kon ñu jël ah, kooku nag te taxawal ni dugg ci waxtaan bi yaa yëngal yëf yi nag eh, yow nag xam nga ku fekk kàmm yemb kàmm yemb ku ko yëngal ades ah, na la biw bismillah ndeysaan ndeysaan ndeysaan mbokk yu bismillah noo tudd ak fooy wootee da ngay wàññi sa télé mel na ni kon mbokk yi nañuy dégloo nañuy dégloo téléphone yi tey tey wàññi télé yi hmm. bismillah mbokk nekk ci ligne bi waaw salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. Eh, sëñ Boubacar ñu ngi lay siyaar. yàlla nañ sëñ boolewal bi noo tudd ak fooy wootee. Eh, damay dama dama bëggoon a leb leb leb tur bi. ah lebal nañ la ko rek boo amee nga fay incha allah. waaw incha allah di di di di di saa lay ñu lay bu baax a baax. jërëjëf yàlla nañ sëñ bu baax. amiin di siyaar sëñ Moustapha. waaw ah, sëñ Moustapha jaajëf sëñ Moustapha ñu ngi lay déggee. jërëjëf. wax dëgg yàlla di rafetlu waxtaan bi. waxtaan bi neex na lool. waaw te tegu na ci xam-xam. tegu na ci teggin tegu na ci yar. te ñun murit eh, genre waxtaan yi dañu bëgg. waaw genre waxtaan yi dañu bëgg. ñu ñu koy xamal. ñu xamal kan mooy sëriñ bi. di ko teg ci xam-xam di ko teg ci teggin. Mm-hmm. moo tax yëf boo gisee ligne bi gaañ yi dugg ji song ko. waxtaan yooyu neex. dëgg la tegu ci xam-xam. dëgg la dëgg. waaw sëriñ bi daal jot ñu waxtaanee ko fi ñu ko war a waxtaanee. dëgg la. ak ni ko war a waxtaanee. la waaw bañ di mhm. jàngal si Ibra loo xam ni. doy na waar. Mhm. kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm. leen wax ne daal ñu ñëpp kontaan nañ ci waxtaan bi. Mhm. ndeysaan. waaw sëñ Boubacar. ak sëñ Sall. ñu ngi leen di bëggee. naan ñaan seen yokk seen xam-xam. yokk seen fan. amiin li ngeen bëgg daal yéen a ko xam yàlla nañu ko sëriñ bi defal. amiin amiin amiin xam naa du lu guddal ndax waxtaan bi neex na lool. jërëjëf ndeysaan ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu leen di ñu ngi leen jërëjëf jërëjëf kon régi bi ñu téyel ñu ligne bi tuuti ndax defe naa fi ne gaañi seen yaram tàng na wallaahi hmm. waaw ndax sëñ Moustapha yëngal na xol yi ba ci mbokk moom nga xam ne daal leptur bi ñu lebal ko ko moom bu amee rek fay kon yaa ngi woon ci Cheikh Ibra hmm. ñu tënk foofu nag hmm. bu ko defee kon baax na ba tey waaw waaw xam nga ku toog jot ay jotaay kàngam yu mel ni yéen waaw wax dëgg yàlla day jàngat ci seen kàddu bu baax barkal ndeysaan man maa bëgg yéen lu ngeen bëgg rek fukk bëgg naa sëriñ bi. sëñ Saaliw. dafa toll jamono boo xam ne dañoo war a jàngale sëriñ Tuubaa. wallaahi wallaahi. te dégg nga sëñ Rafaaye Mbàkke. moom mm-hmm. sëñ Fallu nee na ba tey waxtaanee guñu sëriñ Tuubaa. ba tey jii waxtaanee guñu ko. waaye ki wane. kii kum doon. Mm-hmm. Ah. mais Cheikh Ibra Fall lañ war a jàngalee. waaw ah, waaw ci la ñuy xamee sëriñ Tuubaa de. ci moom la mm-hmm. moo tax Cheikh Ibra Fall li wax. wa amal muriduun mm. fa mardatuhum bi sittati ashyaa Hmm. teel ma par benn rek. waaw mu ni teel murit yi waaw yoon wi ñuy jaar ba am ngërëm maa ko xam. bi ñuy jaar ba jëriñoo ngërëmul Serigne Touba yi maa ko xam na moo ko xam waaw nan déglu kon ndax Serigne Touba dañu isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmaani xaysu qasada Serigne Touba nee na murit moom lenn yitteem muy ngërëm Seybra nee na yoonu ngërëm maa ko xam amal murid marbatuhum la wax sax baat ba la utiliser hmm. waaw seeni ngërëm yéen murid yi ngeen wut Serigne Touba waaw yoon wi dañ koy maa ko xam <laughs> kon ku bëgg ngërëm déglul waaw mu ni lan la imaanun bi ci njëkk bi ci njëkk da am ngëm da am ngëm waaw ci sëriñ bi sëriñ bi da koy gëm gannaaw boo gëmee yàlla gëm rasulilahi da gëm ne sëriñ bii moo dox sa digganteek sa borom mm. ci ngay amee yàlla ci ngay amee rasulilahi waaw ngëm ngëm sëriñ bi mm. waxoon naa la sànq mm-hmm. zunnoon kàngam yàlla jooju waaw laa yakunul muridu muridan illa an illa baxda an yakuna imtisaalihi li kalaami cheikh yi aksara min imsali kalaamillaahi taala maa la ko wax ab murit du doon dëggi-dëggi murit hmm. du dul jëfandikoo ndigalul sëriñam day ëpp doole ci moom jëfandikoo ndigalul yàlla xam naa boo ko waxee ci réew mi ñu ne da ngaa weddi yàlla hmm. waaye Sëriñ Tuubaa ni anna sayqahu waasitatun baynahu wa bayna rabbihi hmm. la wax lam bi anna muraadaka fii miftaahika inda cheikhika maa la ko wax sa caabi nga neel sa sëriñ a ko yor neel benn benn gëm sëñ bi kon faaw gëmees imaan faaw nga gëm ko bay wut ngërëm gëmees ñaar bi ñaareel bi deuxième bi waxus na zandin Hmm, mooy lan ah. rafet njortu Cheikh ku ànd ku ñaaw njortu mën a maa ànd ak yow ànd ak sëñ bi di ñaaw njort ci moom waaw yow moom doo jariñ fa kullu man asa azannahu bi yaa yaa rabbi yaa yàlla yàlla musal Cheikh Ibra Fall nee da ngay rafet njort boo na zannin rafet njort ci sëriñ waaw sëñ fa mu nu jëmee xam na ko mm-hmm. Mm-hmm. temps bu zi taalluqin bi yee mm-hmm. yazul bi jaaye man ilay wujuhan nuzul waaw yoon wi rafet rafet njot munu cee ñàkk waaw dëgg munu cee ñàkk waaye jàpp ne fi mu jëm nii ak ni mu ko defee ah. nangam ak yooyu waaw ah, doo jariñu doo jariñu mukk kon da ngay rafet njott ñi tu lu mu def nii la kon ma jàll ci ñetteel ba kon ñaara ngoog ñaara ngoog nasaatun bi xidmatin mooy la sawar ci liggéeyal sëriñ bi di diital tendeefal ak gaa yaa nga ja dana baax. <laughs> waaw <laughs> fasaale leen ma <laughs> dañoo woote xel kaw nga ne gaa yaa nga ja dana baax waaye la fa daje lépp mën nañ koo liggéey. waaw liggéey bi ak liggéey bi du nee na lu jóg nga ne gaa ya mën na ko gaa yi dem bala. Mhm. Hmm? lu jóg nga ne gaa yi na ko. waaw nee na gaa dem bala te sëñ Cheikh Fall nee na. Hmm. lépp lu ngeen gis ci yoonu murit lu mu nduru nduru lu baax bu wuuteeg jëfi Cheikh Ibra baaxul. wax na dëgg billaahi sëñ Cheikh Fall la ko wax. moo wax dëgg loolu wér. nee na lu waay di jëf ci yoonu murit. Mhm. lu mu rëy rëy te nduru lu baax. Mhm. nee na bu wuuteeg jëfi Cheikh Ibra baaxul. Mhm. ba gisee Cheikh Béthio bari doole. murit bu mag boobu. saa waay man ah, kàngam ju rëy jooju. barke Serigne Barke Borom Touba. oh. démb dama nàkk rek muy ma. xëy na xëy na bàyyi woon ci dal. ah <laughs> ma yëngal nag. <laughs> avant saa waay. togg di joxe. amul xejj ak seen mhm. ba yóbbu ca sancaan ya di ko defal sëñ Saaliw muy mi ngi rek tey bëgg tey mooñ sëriñ si Cheikh Béthio bu mag ba mm. mooy sëriñ bi kooku kooku kàngam la joo xam ne liggéeyu sëriñ Tuubaa bu sotti la mu fàññal ko ci sëriñ Saaliw ku bëgg sëy Faal da ko roy da ko roy dund ko mhm. ci baax tabe mhm. nangoo dënale Cheikh Ibra nee na ñaar mooy yeggale góor yàlla fa suñ borom ñimi tuuma ak joxe ndab ñemetuma judul dëgg ak joxe ndam Cheikh Béthio nag ku ko ci man xaw ma ko man réew mii nag ku ko ci xam nag ma ko wax xaw ma ko de man man seetlu ko sax waaye gisuma ko ah. boo ko gis di boo ko seetoon te li mu liggéeyal Serigne Saliou waaw li jiitu lii nit ñi teg bët ah. kenn xamul na mu toll booba dara du dara booba dara ko xewagut booba dara du dara yaa wax dëgg barke borom Tuubaa Cheikh Béthio daal lax ay ngërëm mm-hmm. Cheikh Béthio murit da la gën a sawar ci liggéeyal sëriñ ñetta ngoog ah, ñetta ngoog de ñette ñeenteel mm, mooy lan joxe sa alal joxe sa alal mooy tabe Cheikh Ibra Fall nee na ah. am murit du lobbu du lobbu lobbu mm-hmm. day taxan jaaroo ba tëdd jot mu fàkk tëdd am murit du lobb waaw day taxan jaaroo ba tëdd jot ba tëdd jot mu fàkk tëdd mu fàkk tëdd eh, loo am rek joxe mooy da ngay tabe sëriñ bi wa maa umiru illaa li ya'budullaha muxlisina lahu diina wa yuqimu salaata mooy joxe mooy joxe wa yuqimu salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun jullit bon na yi yàlla du ko nangu wa man yuuqa suhha nafsihi fa ulaa'ika humul moo tax mu ne sëñ Bamba ba ma xamee ni réewum Sénégal hmm. ñu gàtt àlluwa lañu hmm. laa la wax ni leen wax leen dëgg ñu dégg ma wan leen dëgg ñu gis hmm. waaw waaw wax leen dëgg ñu dégg waaw ma wan leen dëgg ñu gis waxi Cheikh Ibra la ndax ñoom dégg gi rek taxutul ñu mën cee jariñu waaw faaw ma wan leen ko ñu gis nañ koy defee waaw waaye Cheikh Ibrahima yëpp baax barke borom tubaa dëgg oh, wax leen dëgg yow waaw yow yàlla daf laa wax mhm. nga wax leen moo tax mu bind ay tontek fii moom yeesalaat li rasul lay indi woon la ko yàlla doyee dëgg la Cheikh Ibrahima Fall nag mooy pratique xam moo tax ma dégg si Moussa si Moussa Fall Mbar maa ngi koy siyaare yàlla fi yàgg téwér waaw di wax naan see Cheikh Ibra Fall nee na de seen Cheikh Fall Mbar ko benn la waaw benn la lu alxuraan ji waaw wax na li tax wax tax mu tax jóg waaw waaye man naa mm. la baslun baslun kon ñeenta ngoog ñeenta ngoog wax nga imaanun gëm sëriñ bi waaw xusnu zanni xusnu zanni rafet njort ci moom waaw wax ngay it nasaaxatu sayx mooy. sawar ci liggéeyal ko. waaw waaw. waaye wax nga baslul. waaw nangoo joxe. waaw juróomeel la mooy tasallulin. juróomeel ba. waaw waaw mu loolooy lan. tawaadoo. tawaadoo humilité. boobu mii nga sol. Ah. boo gisee sëriñ bi raam. waaw waaw. bu ko defee yegg suuf. sëriñ baa ngoog. nga buur ci suuf. lu mu rafet rafet. sëriñ bee la ko jox di. waaw. tasallulin amuk taalibe. waaw gis sëriñ bi fokk sa mbaxana. Cheikh Ibra Fall la ko fi indi. Mhm. tasallulin. tasallulin waaw mooy tawaado. mooy yàlla ne inna la seen yaqut doona hinda rasulullah mm-hmm. waaw koy def ci kanam yonent bi mm-hmm. waaw ulaika allasina amtahana allahu qulubahum li taqwa lahum maghfiratun ajrun azim yaa ko wax de loolu la alxuraan nekki xanaa looloo tax suñ bi naan waxtarabu waxaddabu waaw wakaramu wasaslamu tawaadohan ah. tawaadohan waxasamu waxasamu li xaddisin muxtarab rasulullah ak tawaadohan isxarafu rutbatahu nee na ban xamee dara jaam ji rek waaw lan toroxlu ci kanam kon loolu yàgg na fi de yàgg na fi de Seydou Fall alxuraan pire leen di ah ak suñu suy tal mais lii laa bëgg ñu koy wax réew mi. man fii laa ne de. moo tax nga ñëw wax si ko fi. lii la fii laa ne. waaw suñu Cheikh nag fii la ma teg. Mhm. fi mu la teg a baax de. waaye mënoo ñàkk sëriñ bi. Mhm. tasallu lu <laughs> tasallu leen toroxlu. toroxlu kooku de xanaa mooy juróom benneel wala juróom. mooy juróom maa ngi ci juróom benn des. benn des waaw ndax gëm gi rafet njort gi liggéeyal gi joxe toroxlu juróoma ngoog de. noppi nga waaw <laughs> kon juróom bi dama koy leb bañ dellu si man maa ko jox. digg waaw ah, juróom beneen jox <laughs> moo xam yoon wi. moo xam wallaay ndeysaan mooy yoon wi. juróomeel ba nee na ittibaa ittibaa ittibaa awaamiri seex yi. Ah. maa ah. loolu mooy lan murit loolu nag moo yor yoonu murit fii mu ne moo tax mu bëggoon koo denc ban dajawaat. waaw nga tax ab jotaay la. ittibaahu awaamiri awaamiri seex sax ci topp ndigali sëriñ bi. ñun moo tax na doon murit. a mm-hmm. dégg ñaa murit ndiga. ah <laughs> bés buñ ko bàyyee. Ah. yem ak ñëpp. yem ak ñëpp wax nga dëgg laa taf alu shay'an bi xayri ismi fa isnu. sartun fii xabuli. salaamaaleykum wa rahmatullah ah sëñ Saliou nag tey nag mel na ni jotaay bi dafa ala daw bi daa ala bi xam naa ni mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di jéggalu wallaay kenn doyalu waxtu wee ñu dab waaye konoon dañuy dem ba fajar te kenn du doyal kenn du doyal ndax dañoo mujj téye ligne bi wallaahi ngir waxtaan wi mën a wéy wallaahi sëñ Moustapha bég nanu xol yëpp sedd na xol yëpp sedd na ndax waxtaane nañ Cheikh Ibra ci beneen anam hmm. façon bii mu ko waxtaanee uh-huh. day façon bu àdduna soxla wallaay ndeysaan façon bu jamono soxla Cheikh Ibra Fall Alaaji Boubacar dem na ba uh-huh. ñun koy waxtaanee tax na waaye foo ne Cheikh Ibra Fall ñu defe ne yëfi dof ngay wax. dëgg la ay soli sagar. Mhm. yëpp ci garab daanu. déedéet da ngay gis ku bëgg nuru nuru lu Cheikh Ibra sax. na muy soloo rek moo lay wan ni kii xamul Cheikh Ibra. xamul Cheikh xoo xoolal sëñ Moustapha bi. xoolal si biir si. waaw tabaay Fall la. Ah, moom laa bëgg a doon moom nga doon. moom laa bëgg a doon de. wallaay man benn idole laa waaw si Cheikh Ndigal. waaw yaa wax dëgg. Ah, dem na ba Turquie di jënd ay téere di ma ko indil. ndeysaan ak ma Mawahibul Ladina lil Qassalaani moom ko njëkk a may ci àdduna. ndeysaan suñu seex ndigal baax ndigal waaw a bari xam nga. ay ku ku géeju la. ka jàng. sëñ Muntaxa mii na ak sëñ seex ndigal. Hmm. waaw booba kenn ku ne di wut xam hmm. loo xam ne sax mën nañ su ko wax ci pénc. Hmm. waaye ñoom ñaar dégg mu la ko seex ba ni xamee kat li li lépp xewul. ndeysaan ba ni xamee li lépp xewul. waaye seex nag da ba la daal la ci ngërëm. <laughs> waaw yàlla Boubacar. waaw sëñ Saaliw. waa lii lu mu téere bii. Ah. kii mooy jës bul murit mm-hmm. ah génne leen ko ci télé bi nañ ko suum jës bul murit kii mooy jës bul murit jës bul murit ku ko bind Cheikh Ibra Fall kon Cheikh Ibra Fall borom xam-xam bu mag la ba bind téere mm-hmm. ah, jës bul murit lii ma jukki ci waxtaan wi ay tomb la rek yónne ci biir téere bi mm-hmm. baa xam nga ni faaw nga ñoo defal na ah, spécial gis bul murit téere bi am na mot fukki bunt ak benn fukki bunt ak benn waaw te maam Cheikh Ibra ko jàngale waaw xanaa ay olof la ay arab yu leer nañ. arab la ko bind. Mm. waaw ah kon loolay la wane ne xam-xam. xam nga mokkal làkk ba mën cee bind ba mën cee bind lii arab yu leer nañ. dëgg la dem boo demee ca baat ba mujj ci téere bi. waaw mm-hmm. yaa ayyuhal aaqilu. Mm, yow laay mm-hmm. waxal. laa taj alil arda misla farasin. aywa samba. <laughs> raakibahu wa raakibul ardi. yey asu illa an tarkabahu al ardu wallaay ndeysaan te xeeti maam arab bi mu jëfandikoo sax moo lay xamal sëñ bi laa doon gars yi sajari sax bi yow mi yéeg ci garab goo xam ne ah. daa jëfee yéeg bari dëkk ah. aleyka bi an la taxarul miraja sa bi yéeg bu muy weesu xam de bu ko weesoo rek jël ba ñaaw wallaay wax nga dëgg waaw boo weesooy xot xam de wax dëgg yàlla ca ca ngelaw la nga jël ah, <laughs> kon nag mbokk yi sëñ Moustapha Seck ngi noonu ndeysaan ñun ñëpp ñuy am mbégte nag bu baax a baax a baax a góor ci dalal la tey fii ndeysaan jërëjëf Fall fii ci fii ci plateau bi ndeysaan ndax xol yëpp sedd na sëñ Saliou dama lay jox nga tëj waaw sama xol sedd na ba noppi yow tëjal waaw sa waxtaanam wi mm-hmm. képp kuy murit sa xol sedd na mm-hmm. ndax murit xolam Seydou Fall da ciy nekk mm-hmm. te day bëgg ko koy sulli dëgg la waaye rawatina façon bu mel ni Seydou Fall day borom xam-xam bu mag ci Seydou Fall day njëriñu àdduna ak alaxira suñ ko dee waxtaanee ci xam-xam nag mhm. nit ñi dañuy xam ni kon Cheikh Ibrahima Fall daa ni woon en tant que ngir wane njëriñ Cheikh Ibrahima Fall du jaasi mhm. Cheikh nuru wut ku tàggoog sagom mhm. Cheikh Ibrahima fànn bu nuy nawee doomu aadama rek ak ci yàlla moo ci man kon Boubacar bég nañu ci bokk gii nu bokk ak jotaay sunu soppe sunu xarit sunu mbokkum taalibe mooy sëriñ Moustapha Seck wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon sëriñ Moustapha ñu jox la nga tëj jërëjëf maa ngi am mbégte sëriñ Saliou suñu Boubacar toog ak kàngam yu mel ni yéen. ndeysaan yéen maa leen bëgg yéen. wallaay waaw man maa leen bëgg. wallaay barki Sëñ Tuubaa. wallaay dëgg la ci man. wallaay dëgg la te yéen da a bokk ci kàngam yi Sëñ Tuubaa yi. ndeysaan waaw waaw maa ngi ñaan Sëñ Tuubaa lafal leen ci. amiin yaa rabbal nii mu wax nag. Mm. Serigne seex Fall Baye Góor nee na. Mm. roog yi dundal murit nee mooy Cheikh Ibra Fall. Mm-hmm. roowu murit Cheikh Ibra la koy dundal. la kon bu ngeen ma woowee ci jataay bi mm-hmm. te ñun ñëpp muy noyyee Cheikh Ibra mhm. ñu man koo waxtaanee nii mhm. te ba ñu yéeg ci garab ak daanu daf may neex man ndax téere bii ma la wax mhm. Serigne Cheikh Ndigal nee na ma Cheikh Ibra la ko bind doy na ma dëgg la sëkk te li ci ne mën nañ koo waxtaanee at du jeex te it dañ ko mën a lëkkaleeg lu bari ci alxuraan ak sunna ci alxuraan ak sunna wallaahi ak mbindum sëñ Tuubaa ak mbindum sëñ Tuubaa maa ngi am mbégte alhamdulilah rabbil alamin di leen sant ci bunt bii ngeen nu may dëgg la di ci sant Serigne Saliou Fall mhm. mi joxe ndigal ma ñëw ci jotaay bi lu ci njuumte nag wallaay lépp a jub jëmm ju xeebu jii la wallaay lépp a jub a lu ci dëng rek Moustapha mhm. mu xeebu mii la lu ci baax nag ci mbaaxuk Serigne bi la maa ngi jaajëfal ñëpp di jéggalu kilifa yi ak sama kilifa yi topp jataay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf kon kooku mooy sëñ Moustapha Seck moom la jotaay xam-xam ak taalibe dalaloon fii ci Leeral TV ñu ànd waxtaan bi ci maam Cheikh Ibrahima Fall waxtaan wi neex na lool kon nag faw nag nga dellu si waat nag. incha allah kon nag wa axiru daxwaana. alhamdulilah wasalaamualeykum. wa barakaatuhu. wa mawlaana muhammadin wa ali wa sahbihi wa xadimi wa salama tasliman safaru ba rajo ba ngeen doon xaar day yegsi na rajo leeral rajo conducteur yi rajo taximaan yi rajo chauffeur 96 point 1 ci Dakar